alhamdulilah rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliq alxaatimi lima sabaqa nasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim wa radi allahu taala an asxaab rasulillahi sal allahu alayhi wa sallama ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر بالتعطيب بنظرة تأتي لنا بظهر بعد المد الأخرى الحضرات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سادة الحضور إخواننا الأجلاء ضيوفنا الكرام أصحاب رسول أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وفدوا من جميع بقاع الأرض ليشاركنا حفل هذا المولد الكريم مولد سيد البشر مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحيي جميع الحاضرين وعلى رأسهم الشيخ محمد البشير ابن الشيخ الحاج محمد زينب و sinwihi cheikh Seyd al Arabi wa cheikh alxaaj Mouhamed Zeynab wa duyufana ahfaad cheikh Tijaani wa duyufana alladina jaau min almaghrib Cherif Idrisi maa hada almunshid alladi aslaja sudurana bilmusharakati maana fi madhi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nashkuru jamia alxaadirina wa qad tuliba minni an أشرح قصيدة من قصائد الشيخ إبراهيم كالعادة وأهنئ حضرة الشيخ في هذا اليوم البهيج نهنئ الخليفة الشيخ محمد الماحي وإخوته وأولاد إخوته ونهنئ الشيخ محمد الأمين والإمام شيخ التجاني ونحيي جميع الحاضرين ونهنئ أيضا فتيان صدق الإخلاص الذي اعتاد و دأب على تنظيم هذا اليوم للمشاركة في إحياء فعاليات هذا هذه الأيام المباركة بالمشاركة بقصيدة من قصائد الشيخ إبراهيم رضي الله عنه ñu ngi nuyu ñëpp di ndokkeel ñëpp di nuyu tim fond Medina Baye bi nga xam ne ne Aliou Diop wax na ci seen làmmiñ te ñu ngi teew ci eh, vice président baa nga gisee ak Lamine ñu ngi nuyu fitiyaan sidqin wal ixlaas ci njiital Cheikh Ibrahim ibn Sayidi Tayyib ibn Cheikh Serigne Bay di nuyu suñu doom yi fi teew Moustapha Cissé suñuy rakk Amadou Niass Mamoun ñu ngi nuyu ñëpp daal ci gàttal di eh, barkeelu ci xasida bi nga xam ne moom lañ bëgg a jàng di ñaan yàlla mu nekk e, shifaan wa wiqaayatan wa taxsinan wa jalban wa fatxan lana wa lil jamii xasida bi suñ doom e, xaaj omar pa omar jàng na ko ضياء من الهادي البرية مصطفى خيارهم إذ أن ربي قد اصطفى xasida euh, euh, bi mu ngi ci seyrul xal bi comme ñoom comme ni ko ñëpp xame seyrul xal bi lépp bàyyi mu ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamee ne mujjëg taggam yi yëpp tagg yonent bi la sallallahu wa sallam lim ko taggee tim ci mujjëg taggam yëpp yépp ci baxru tawil la seyrul qalbi kon ci baxru tawil la ko baay toggale baxru tawil tur wi rek doy na dafa gudd moo tax ñu tuddee ko baxru tawil yenentu bi itam moo gën a gudd ñëpp dayo moo gën a yëkkatiku ñëpp maqaama muhibbin yi sax wax nañ ne baxru tawil mooy baxar bi nga xam ne muhibbin yi moom lañ gën a tànn te boo doon jàng tim muallaqaat yi da gis ne li ci ëpp ci baxru tawil la nekk moo tax bàyyi moom la tànn ci li gën a bari ci taggee ko yonent bi sallallahu doon ci taggee na ko ci yeneen baxar yi baxrun basitun kaamilul maddi waafirun wa kawniya iyaahu alayhi yasiiru taggee na yonent bi ci buxur yooyu nga xam ne dafay daf koy bëgg di indi seen tur ci tag yonent bi ndax maanaaye baxar yooyu yëpp dafay niroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam basiitun ndax dafa tàllalu yonent bi mooy ki nga xam ne leeralam leeram tàllalu na jëm ci àddina yëpp qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdi bihi llaahu man ittabaa ridwaanahu subula salaam wa yuxrijuhum min azulumaati ila nuur bi iznihi wa yahdihim ila siraatin mustaqim kooku mooy leer gi mane ne bàyyi nee na ko bahrun basiitun kaamilul mëddi waafirun taggee na yonent bi ci bahrul basiit te loolu ci ci yeneen téeréem yi waaye du diiwaan sitta diiwaan sitta téere bi mat na ñetti junney bayteeg nangam mas naa ko bind fenn njëkk dépasse xam naa xam naa moo xamoon fu mu nekk danaa xam danaa mën a wax ñaata la xam naa ne mën na ñetti béy ñetti junney béy teeg nangam yëpp ci benn baxra la mooy baxra tawil lu may benn xasida boo xam ne dugal nañ ko ci jullu fikri fii maali ahmad al jëmmi nawaali nga xam ne ci baxra ramal la waaye taggee na ko ci baxrun basit mustafilun faailun mustafilun faailun baxrun basitun kaamilun maddi kaamil xam nga dafay niroog yonent bi ndax moom mooy ki mat mutafaailun mutafaailun mutafaailun taggee ko ci e, mëdd taggane ko ci waafir mufaalatun mufaalatun faulu waaye da gis ne mëdd lu tàllalu la waafir lu tàllalu la moo tax muy waxaat ci biir taggeem yonent bi wax waxrun basitun kaamilun mëddi waafirun kawni yaaw alay yasiru alayhi salaatullahi wa salaam abi qaasaahu wa huwa kabiru te mbëggeel googu nga xam ne maa ngi ci roy sama baayam nga xam ne doon na dem ba nekk mag di sonnee mbëggeel googu ndax nekk mag enu mbëggeel yombut li ci tegtal mooy bàyyi mbëggeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaaj Abdoulaye moo nettali keroog bañ tëralee Ali Ali Maddah mu ne dafa xam bàyyi ni mu bëggee bayti Ali ni ba bàyyi feebaree nekk France mu ne ma seeti ma dem defar bandi Ali ñëw indi ko indi ma fan bi teg bàyyi na ko déet déet suma yaram bi àttanu suma yaram bi àttanu lii suma yaram bi àttanu lii moo tax euh, euh, wéyam yi dafay dafay génn fekk mu ngi génn ci xol boo xam ne dafa enu dafa enu lu diis ci mbëggeel euh, wéy yi moo koy moo koy nokkiloo ci loolu dana am koo xam ne bind na wéyam ci mbëggeel waaye bu paree sax bëggatu koo dégg nga gis bàyyi wéyam yi nga xam ne moo ko wéy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare bët bu set buñ euh, wasifa ba mu toog bugg ko dégluwaat loolu daf ñuy xamal ne ñun war nañ koo déglu war nañ koo jàng waxoon na feneen ci ba buntab tawaado di wax ne <coughs> wax Muhammadul Aminul Jëkkani ci buntam bëggee li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk lu ko yokk mooy jàng am daaxam yi jàng siiraam jàng jàng euh, julli ci moom jàng wéy yuñ ko taggee mu ne ko man nag li ma ko taggee moo gën a xëy ci yow wa in kaana maa qaala xayri alaa wa axlaa li ann almashraba waxidun mu ne ko man li ma taggee yonentu moo gën a xëy ci yow donte ñeneen ñi seen tagg gën naa foor gën naa yëkkatiku loolu ci buntëb tawaadoo la diyaaun min alhaadi albariyati la commencé dañ doon firi baat yoon diyaaun min alhaadi albariyati mustapha xiyaarihim leer gu nga xam ne moo tukkee ci ki nga xam ne mooy aji jubal mbindeef yëpp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla nee na ko wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim da ngay juble jëm ci yoonu njub donte yàlla wax na ko ne ko innaka la tahdi man ahbabta doonte duwut ne ku la neex rek ngay jubal loolu mooy wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim mooy yow da ngay tegtale njub waaye kii maye njub dëgg-dëgg yàlla la kon alhaadi mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga haadi dëppoo nag diyaaw ndax kuy juble dafay dafay leeral kon baat baat yu méngoo la boole diyaaun min al haadil bariyati leer gu nga xam ne mu ngi tukkee ci nga xam ne mooy aji bidal mooy aji jubal mbindeef yépp kooku mooy kan Moustapha xiyaarihimu mooy ki nga xam ne ñoom ñépp ñiñ tànn ci ñoom kii seen tànneef mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam is anna rabbi ngir sama borom qad istafaa tànn na ko ndax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne ana xiyaarun min xiyaarin min xiyaar yàlla nee na ko laqad jaakum rasulun min anfusikum am na ñoo xam ne dañoo jàng min anfusikum yonent boo xam ne tukkee na ci ki leen gën a tedd moo gën a tedd nafsan moo gën a tedd urumatan moo gën a tedd ci mbooleem yonent yi bu ñu leen boolee moo tax bàyyi ne fa Muusa wa Ibrahimu ma najli maryamin lahum rutbatun wal kullu amnun li xaaifi walakinama almuxtaaru arfau mansiban fa minhu manaalu aqdamin algataari fii Muusa ak Ibrahima ñoo ñëpp bàyyi nee na am nañ ay dayo yu kawe de waaye te ñoom ñëpp kóllëre lañ ñeel ku ragal ku tiit ndax ku ànd ak ñoom ñu musal la ci xay àddina ak xay àllaaxira ndax xay àddina li ci gën a bëri li koy bijji mooy ñàkk topp ci yoon am nañu nekk ci kaso dañ leen a tooñ mais ñu gën a bëri ci ñuñ tëj dañoo teggi yoon rek moo tax ñu tëj leen kóllëre rek alaaxiratim topp yàlla rek moo koy maye te yàlla kenn du ko topp nim la neexee danga koy topp ci nim ko bëggee te nim ko bëggee dafa dañut di yónn ay yonantu yonantu bu ñëw yonantu utu ko ba mu yónni yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ki nga xam ne nii mooy mu jëg yonantu mooy yàlla doot yónniwutu keneen gannaaw bu mu yónnee yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi moo tax bàyyi ne walakinnama almuxtaaru arfau mansiban ñoom ñëpp ay tànneef lañ de ay kóolute lañ ay bidd njub lañ ay janti njublañ waaye ki nga xam ne mooy muxtaar mu yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi moo gën a yëkkatiku ci ñoom daraja te moom ñi jiitu ñëpp sang yëpp ci moom lañ amee seen cang wa kulluhumu gurrun saratun jillatun wa ma kabni abdillahi inda tawaifi ñoom ñëpp ay sang lañ ñu màgg lañ waaye nag kenn ci ñoom melu ni doomi abdullahi ji mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi moo tax mu ne mustafa xiyaarihimu ki ko tànn nag moo yàlla tabaraka wa taala xam nga wéykat yi bari nañ bu ñuy wéy eh, dañuy jaar ay jaar waaye néew na nga gis bàyyi rawatina bi mu àggee ci wéetalal taggam mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy jaar ay jaaruwaay dëgg la léeg nga gis da aaniya min selma wa layla wa qalila daat ni mahaatun dalluha wa ibtisaamuha daani awaana shaybi minha garaamuha min tizkaari selma wa tandami wa jamaal alhaashimi mutaraddami bu dul ñett yooyu da ci baytam yu nga gis muy muy tudd loo xam ne dafay mel nii sax dafay def xasal wala jaarukaay deerukaay te jaaruwaay yooyu bala cee jaar balaa sori rek dana la wax ne bàyyi ko bàyyi ko ndax koo xam ne boo ko soxlaa léeg-léeg mu nekk fi léeg-léeg du fi ne bàyyi ko ngay ànd ak soppe bi nga xam ne nii foo nekk mu nekk fa ak yow daat nii mahatun delluha ibtisaamuha dawaanit دعاني أوان الشيب منها غرامها قلبي مدى الأيام عند قيامها قد عز منها الوصل حتى سلامها yoo xam ne jokkoo moom sax wala am nuyoom sax dafa jafe ci moom kooku bàyyi ko nga dem ci kan demal ci soppe bi nga xam ne mu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi fii ñu toog ci mbaar mi boo toogee ne assalaamu aleyka yaa rasulallah xadis ju wér la yàllaa ngi bàyyi malaaka boo xam ne moo koy wax ne ko diw sàngam ci mbaaram baay ma ca Medina Baay ca kaw Kaolack ca Sénégal nuyu na la yonent bi delloo ko nuyoo kooku boo ko teg soppe boo xam ne bu la neexee boo boo ko amee tey bu subaa doo ko am moo tax buy jaar ci benn jaaruwaay sax balaa agsi ci jaar yonent bi daf ciy jaar pour wax la ne bàyyi loolu jàppal kii mahaamin fuaadi xubba leyla wa tendemi widaadul imaamil haashimi mu fa xami loolu xam naa ne ñuy jàng adab ñoo gën a soxla nit ñi soxla ñu loolu nit waxtaan bi rek lañ soxla ñu dem ci li ñuy xaju waaye diyaaun min alhaadi albariyati dafa tëb rek àgg ci lim mu bëgg wax leer gi nga xam ne dafa jóge ci ki nga xam ne mooy jubal ñépp mu yoon Yàlla Muhammad sallallahu feneen nee na ko dafa tëb rek àgg ci moom diyaa'uka minhu lkawnu qad yataballaju wa min faydika aljaari bihaaru tamawaju yow sa leer àddina bi yépp ci lay leeree ci sa may géej gi ci la ñuy bëbbee feneen mu ne fa nuurun bihi l anwaaru wal kawnu kulluhu wa aadamu min zannuuri baana lahu ramz leer gi nga xam ne leer yëpp ci moom lañ tëkkee mu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàng nañ ko léegi qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabu mubin parce que ba mu ne ba kitaabu mubin ci lañ xam ne ñi firee na nuurun mooy yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am nañ dëgg ndax al atfu lu nax yi nii wax al atfu al atfu yaqtadi al mugaayara al atfu yaqtadi al mugaayara buñ ne Omar ñëw na ak zey wa zeydun waaw googu dafay tegtale na omar ak zeydun du benn qad jaakum min allaahi nuurun wa kitaabun mubin kon yàlla tuddee na yonent bi sallallahu wa sallam leer leer la fu nekk welxaana waslu min xabibi ba tabhaju ala daka nafsi wa diya yetaballaju ba tey ne mata sataat barqul wamiidu muhammadun tadallat muzunu ribxi wastawtana al izzu looloo tax nag ni nga xamee ne si yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam mooy cosaan leer walay jaala shamsa diyaan wal qamara nuuran fii diyaa la wax dañ ko tuddee nuur waaye euh, diyaa ñu ne mooy cosaani leer ndax looloo tax yàlla fii mu wax ne jant bi diyaa la xamar bi nuur la ndax xamar dafay tukkee dafay jëlee leeram ci jant bi xam nga euh, weer amut amut amut leer dafay dox ba toog leeri jant bi rek loolu lay joxe moo tax diyaa foofu noonu moom moo gën a foofu ma ne nee na ko walam yeku bil imkaani abdau min kaya muhammadu aynul xaqi man nuuruhu xalas amul dara lu nekk ci Eh, eh, nekk gi xanaa li li Ghazali waxoon bàyyi moo ko dugal fi mu ko war a dugal ndax dafa imaam al moo wax ne moo wax ne laysa bil imkaani ibda'u mimma amut lu gën a mën a xéemu ci lu passé woon loolu boo ko dugalutoon ci fi nga bàyyi dugal ci yontu bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ba du set ñi gis lu gën a lu fi nekkoon waaye moo tax bàyyi ne ko walam yëkku bil imkaani ab ibda'u min kaya gisuñ nekkut lu lu jàppandi lu la gën a xéeme yow yow Muhammad ki nga xam ne yow yaay leer ak dëgg ku yàlla ki yàlla yow ki nga xam ne man nuuru xalas leeram dafa dafa dafa sell wa min faydika jaari bihaaru hmm? xabaahu may na ko moom yàlla yàlla dafa may yonent bi sallallahu wa aataahu te jox ko al maqaama maqaama annahu naka moom muraadu muridil kainaati mooy kuñ namm ci aji namm nekk gi mii yàlla namm ak yàlla daal mooy yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy tànneefam mu ne dafa mel ni daal mooy li yàlla namm yàlla daf ne yonent bi sallallahu yow laa bind ngir man li ci des dama leen a bind ngir yow yàlla jox na ko may ko maqaama bi nga xam ne maqaamul mahmud bi nga xam ne wax na ne ku dégg noddu nga ñaan allahuma rabba hadi daawati taama wa salaati alqaayima aati muhammadan alwasilata walfadila wa basul maqaamul mahmud alladi waadta ku ko wax xaddat lahu shafaati mu ne ku ko wax moom ràmm moom yonentu bi war ñeyal la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne maqaama boobu kenn rek ko eeyoo yowmal qiyaamati te defe ne na moom la te xam nga ne loolu ci buntëb tawaadoo la ko yonent bi waxee waaye sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee am na maqaama boo xam ne kenn rekk koy eeyoo yowmal qiyaamati du ñëyal kenn lu may moom yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam moo tax bàyyi ne yàlla jox na ko may na ko ndaxam yàlla may na ko ba wax ko ne ko wala sawfa fa tarda yàlla la jox yàlla dana la jox ba bi daf koo bind ci ajam tawajjahtu min ahli bi kaw laxa saairan jublu naa tukkee ci sama ñoñ sama njaboot ñi nga xam ne ñi ngi kaw lax saairan may aji dox ilayhi jëm ci moom yonentu bi sallallahu wa sallam wali te fekk ñeexal na ma xubbun mbëggeel rasuuxun bay aji sax wali ñeexal na ma iqtifaaun topp buy dëggal sax ak mbëggeel gi ndax comme niñ koy waxee ñun ñëpp dañ koy wax maa bëgg baay baay nag di ñu wan ku bëgg noo war a def wali ñeexal na ma xubbun rasuuxun am naa mbëggeel gu sax ci yonentu bi sallallahu lan moo dëggal sama mbëggeel googu mooy iqtifa dama koy topp moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah yàlla wax yonent bi bu ngeen bëggee topp leen ma man muhammad yàlla bëgg leen mandargaay bëggee li yonent bi sallallahu alayhi mooy topp ko jàpp ci sharia bi jàpp ci alquran jàpp ci sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lépp yonentu gënal la sallallahu alayhi wa sallam lépp keneen kum du moom ay turam gënal la turi ñeneen ñuy moom jëfam gënal la jëfi ñeneen ñu may moom sunnaam gënal la yoon yi keneen ku may moom loolu mooy tegtale mbëggeel gi bi mu wax ne maa ngi ànd ak mbëggeel gu sax ci sama xol waaye mbëggeel googu nag li ko dëggal mooy maa ngi topp yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam kon li dëggal mbëggeel mooy topp muy tudd dëkk yim jaar bi Yoff Dakar bi Las Palmas ci Espagne bil xarbi ci soowu jant Iran may aji naaw fekk mu nga xam ne mu ngi ci avion la dugg yoon bi jaaroon na foofu fekk bato la duggoon ilayhi jëm ci moom bi shawqin ànd ak cofeel wala bi shawqin ci sabab ak cofeel goo xam ne xaj dahaaniye jot na ma mujj ni fa ma da koy songongal ma ànd cofeel goo xam ne cofeel gi ndax maa feebarloo ndax cofeel dana dana feebarloo aji sopp ji bi baxra ci baxra baxra ci diggante jidda ak madi eh, la bi ajiyaat ajiyaat ci makka la léegi fu siiw la ndax eh, eh, ci yu bari foofu la nekk bi awali masjidin ci njëlbeeni juma muy إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان آمنا mooy awal masjid yi awalu masjidin mooy baytil baytillaahil xaraam moom lay néeg bi nga xam ne moom lay njëkk a taxawal ci kaw suuf gannaawam ñeneen fukki at ñu door a taxawal baytil maqdis jumaa yonent ba yonent bi gàddaayee sallallahu la njëkk taxawal waaye awalu masjidin mooy fan mooy Makka euh, masjidil haram mooy jumaay Makka bi mawlidihi bi mawlidi aw fil aalamina ci judduwaay ki nga xam ne moo gën cee mat ci kóllëre ci mbooleem àddina bi te afufan ci fegu te mooy gën mat nit ñi ci fegu tim yonent sallallahu alayhi wa sallam moo gën a fegu képp kuy fegu rek yonent bi sallallahu alayhi wa moo la gën a fegu mu ne maa ca Màkka ca barab bi nga xam ne ci fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo waaye bi Màkka ca makk ba tey nga xam ne mu ngi ba bëgg Màkka ngir asaar yi ngir ne fii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo woon ngir ne fii la néeg bi nekk bi ruknil azimi ci xajarul aswad bi zamzamin ca zamzam asiiru maa ngi dox ma al abraari ànd ak way baax ñi xal bi fekk sama xol tasawafa sufiyankew na nga xam ne dem na ba boole sharia ak xaqiqa loolu mooy xal bi tasawafa mooy xolam dem na ba sell na ci nekk ak leneen lu ma yàlla tabaaraka wa taala ndax suufiyanke yi dañoo wax ne saafa fa suufiya hatta summiya suufi moo xam ne dafa sellalanteeg boromam boromam sellal ko bañ tuddee ko suufi mu ngi naan yàlla nag fa zikraka sa téere bi alquran ji ëtlu moom laay jàng inde baytika ci néeg néeg sa bi ci sa néeg bi arta ji may yaakaar masiir yi dox sama ilal haadi jëm ci haadi ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa hammi te fekk sama njàqare yépp xadinte faa dàpp na maa ngi makka maa ngi jàng alquran ànd ak maa ngi waajal sama bopp di xaddu nag pour bu ma jógee foofu dem ziyaare yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa xam nga bàyyi ak alquran bi yow miyee atluuhu bi jahrin wa xufiyatin dawaaman wa mislu yow mi fii daaka leyluhu maa ngi koy jàng ci sama bés ci kaw ci suuf ci lu sax ni ma koy jàngee ci guddi noonu laa koy jànge ci bëccëg kon jamonoom yépp amul benn jamono ci jamono mi lu may danga gis ne jamono alquran la ndax dana ko bidal dana ko yalu dana ko jàng ci waxtu guddi dana ko jàng ci waxtu bëccëg ma'i zikru mawlana al jalili jalaaluhu min alsaadiqi almasduqi ahmada naqluhu bi yowmiya atluuhu bi jahrin wa xufiyatin dawaaman wa mislu yowmi fi daaka leyluhu rasulullah mu ngi màkka waaye mu ngi naan yàlla maa ngi jàng sa téere bi maa ngi yaakaar nag dem ziyaara ji sa soppe bi nga xam ne moom joxe na faysal ci wax yi ñuy werante ndax nit war naa dem Medina di wax ne jumaa ji laay ziyaara ji wala yonent bi laay ziyaara ji ci ñoom fi ko teg mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne laa tushuddu rihaalu illa ila salaasati masajida duñ duñ takk tukki jëm ci jumaa lu may ñetti jumaa masjid al haram masjidi hada masjid al aqsa bàyyi na loolu mooy duñ dem tukki jëm ci barab ci jumaa ngir jëmmi jumaa ji waaye kenn waxul ne kenn du tukki ngir ziyaar yonent kenn waxul ne nit du tukki ngir sàkku ji xam-xam gis nañ ci saxaaba yi ñoo xam ne tukki nañ doxab ñaari weer pour leeral benn xadis li nekk ci na ngëneeli ziyaari yonent bi sallallahu alayhi loolu yëpp duñ ci jaaraat waaye la baay wax wa man kaana yanxu lil madinati zairan siwaahu fa inni jitu ahmada zaira bàyyi nee na képp koo xam ne yaa ngi dem Medina madinatu rasul di ziyaare ji keneen man de man damaa ñëw pour ziyaare si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi xamoon na ne ci jumaam ji lañ koy suul taxu ne nañ tasaare loolu ci at yee ci gannaaw am na ku def benn utruxa def ne dafay maanaam dafay ñaan ne maanaam xabru yonent bi dañ koo war a génnee ci jumaa ji te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax ne maa bayna bayti wa minbari rawdu min riyaadil jannati xam na ne ci néeg boobu foofu xam na ne foofu lañ koy suul xam na ne foofu xam na ne foofu lañ koy suul yonent bi sallallahu moo wax ne al imaanu yazaru ila al madinati kama tazaru al xayatu ila juxriha nee na gëm yàlla dafay tàppeewu jëm ci Medina comme comme jaan ni muy tàppeewoo jëm néegam loolu tax bàyyi moom ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wasallam masta tàggoog moom bu ma nee dem dana dem bu mënta dem tim mu ngi teew ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam fii moo tax mu ne ko la in shatta anni bil amini madaaruhu fa mashhaduhu bil qalbi laysa bi saarifi la in azzani ruqya nabi wa wisaaluhu faqad daama li tazkaaruhu wa xayaaluhu wa in azzani madxun lahu wa sanaa'uhu faqad tayyamaani nuuruhu wa jamaaluhu fa ñuy ziyaare yonent bu fekkee ne sori na fi ma dëkk muy Sénégal teewlu gi may teewlu yonent bi sallallahu alayhi ci sama xol masta tàggoog man moo tax dem na ba dëkk ak moom raytu rasulallahi jaada bi bugyati fa maa gaaba anni dahra barran wala bahra gis naa yonent bi sallallahu mu may ma li ma bëgg mooy tàggoowut ak man maa ci géej wala maa ngi ci jéeri yonent bi tàggoowut ak man moo tax daf daan toog ba yàgg mu nekk Kawlax du xam ndax fii Medina la wala Kawlax la laqad faaxalii min nashri ahmada faaixun fa xaramani nawmi dumu sawaafixu tayaalun sara tayaalun sara am xalla kawlaxa taybate kawlax chamamtu arijal haashimi yi fa arriqu bàyyi toog ci medina gi la toog ne man damay gént wala tayba dafa mujj di medina gi ndax man ni may xeñtoo yonentu bu ma demee ci medinaam googu noonu laa koy xeñtoo te maa ngi fii loolu dëgg ak mbëggeel gi moo ko waral ànd ak loolu yëpp du bàyyi mukk du bàyyi di dem di bàggante jëm medina lu tax nee na muraadu xajiijil baaxiraati jamiihim جنان وأزواج من الحور والخول وحسبي أرى شيئا رآه محمد وأنزل أرضا كان فيها وذاب جل bàyyi nee na ñiy dem di aji ñoom liñ bëgg mooy am àjjana man nag suma aj gi bu ma ci amutoon dara lu may dem naa ba gis foo xam ne xam naa ne fii la bi sallallahu alayhi wa sallam gis barab boo xam ne wax wër na ma ne yonent bi xool na barab bi ma xool foo xam ne yonent bi xool na ko ku àgg foofu ci mbëggeel bul foog ne mën naa neenal li yonent bi santaane ku dem ba àgg ci mbëggeel bëgg a def li nga xam ne boo ko defut doo am bàkkaat kon li nga xam ne boo ko defut danga am bàkkaat loolu moom waxi na faw mu def loolu lim dëggalee mbëggeel yonent bi mooy topp ko topp ko ci julli topp ko ci or topp ko ci saraxe topp ko ci jàng alquran topp ko ci tënku ci shariatu bi tonk topp ko ci bëgg yàlla topp ko ci bëgg nit ñu baax ñi topp ko ci def lu baax ci teet lu bon waaye mbëggee li xol nag mooy maye ki bëgg moom dana am lu mu bëgg ci ki mu bëgg moom rek moo ko xam moo ki bëgg loolu tax mu ngi màkka waaye mu naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ala ya rasulullahi eeyu yonent bi bàyyi nag yonent bi soriwu ko waaye bu ko neexee mu oo ko ooyi ku sori waaye soriwu ko ndax moom moo ne fii la dëkk xarisun ala ihda sana wal madaixi li jaanibi man suknaahu bayna jawaanixi man maa xir ci yónnee tagg ak i wéy ci ki nga xam ne ci sama ci sama wàll gii la dëkk fii nag mu koy oo naan ko alaa yaa rasulallahi yow yenent bi waxut a rasulallahi dayo bi lay oo oowut barab bi waaye dayo bi lay oo màggaayi dayo bi moom lay moo sori loolu lay soril jut bi zawratin yàlla na ma may ma ziyaare la tuzilu biha bi ziyaare boo xam ne da ci dindi samay njàqare faqal bii sama xol taxawoo fa ragal na ida qabila ndam nangu na al maamuunu kay maamuun kay yonent bi xam ne waa makka yi sax bañ gëm a gut tuddee nañ ko maamuun ndax kaab bin zuhayr ba muy tagg ba muy xas mbokka mi ne abubakar dugal na ko ci lislaam saqaaka abubakrin bi ka'sin rawiyatin fa anhalaka al mamuunu minha wa allaka la wax te boobu dafa doon xas ab mbokkam mi dugg ci lislaam bu jéer ne ko abubakar moo la nàndal kaas bi maamun ñëw sungali la ci kon ñoom boobu ñoom tuddee nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne maamun ne ku óor la bàyyi ne bu maamun ki yonent bi nangoo ne man man bëkk néegam laa te ba dëdde tasaaroo xaw fii sama ragal yépp na nii naka man mudmilul jafa aji saxoo laa ji tongo waaye bi ma yonent bi nangoo li ma yaakaaroon ne man ku saxoo tongoo la njàqare googu dootu nekk ci man te waxoon na ne ci tagam yonentu alayka salaatullahi summa salaamuhu ataqbalu nii yaa mustafa alkawni an naam mooy tagg yonent bi ne ko ndax nangul nga ma mu ne peeb yonent bi nee na ma waaw nangu naa la wa inniya sha'riya maqbulun wa inni xadimuhu wa in kuntu maqbulan tabayyana lil ajab sama way yonentu nangu nag nangu na ne bëkk néegam laa te sama rijaalum bil xadimi wa innani usaabiquhum laa an usaajiluhum laa ansani wa usaabiqu usaajiluhum maa istu fiika wa in amut yusaabiuhum yusaabiquhum yusaajiluhum farai wa fii ka yusaabiq nee na góor ñu bari tuddee nañ seen bopp ne ñooy sa liggéeykat bari nañ lool bàyyi ne feeg maa ngi dund duma ma dëñ di rawanteeg ñooñu te waxoon na ne <coughs> bil qaridi ba inna ni jiddu saqimi du boobu hmm. dégg ma iza qabila al ma'munu anni xadimuhu tabaddala xawfi annani mudminul jafa ñaari diwaan ñaareeli ñaareeli diwaan bi rek ñaareeli xasida bi ci diwaan bi kara والناس في سلة الكرى تمتعت منه الدهر إذ كنت مفردا وزعمت في هذا الزمان وإنني لفي غيرة ممن يروم محمدا ولكنني جليت قبل سباقه moo ne mu ngi ci mu ngi ci course bi du dañ bu fi jógee tim dana bàyyi ay bànqaasam bànqaas yi doom yeeg sët yeeg taalibe yi ñi dëggal ñi dëggal askanoom ci moom yépp ci bànqaas yi lañ waaye nee na laakin na nii jëllaytu xable sibaaqihim man jiitu naa ci course bi njëkk course bi di commencé wa qad niltu tabriz al quruni li ahmada maa jot jiitu maas gi yépp nga ne ko foo jiite jëlee loolu mu ne loolu man mooma ko sang beeku moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mii sama sang moom moom moom moom ngëneel googu ndax karaamaay wàllu yàlla yépp nag génnewut lu may ci mucjisa yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka mucjisaay yonent yépp jugewut lu may ci mucjisa yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa kulluhum min rasulillahi multamisun xarfan min albahri aw rashfan min addiyami wa kullu ayin ata rusulil kiraamu biha fa innama tasalat min nuurihi bihimu yonent yépp seen kaawteef yi liñ indi yépp ñu ngi ko jëlee ci barke yonent bi karamaatil awliyaa yi bay yépp ba tey ci mujise yonentu bi la sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko tere la yonentu ndax dafay dëggal ne ñii ñu dëggu lañ lu tax ñu dëggu dañoo askanu ci yonentu bi te yonentu bi lim askanu lim oote dëgg la xabibi sama soppe xabibullahi mooy soppe bi yàlla bi wa huwa moom xaliluhu mooy xaritam ittaxada allahu ibrahima yàllaa jàpp ibrahima muy xalil yontu salaay salaam nee na man yàllaa ma jàpp muy xabib maqaamu xabib moo gën a foor ma maqaamu xalil xalil dafay ñaan ñu door koo may waj nub wa ba nii an naabudal asnaama la ñaan yàlla fegal ma maag samay njaboot ñi jaamu xërëm yi yonent bi yàllaa ko wax ne ko li yudhiba ankum rijsa ahlal bayt ibrahima moo ñaan wa jaal li lisaana sidqin fi l defal ma tagg ci ñu mujj yi yonent bi yàlla moo ko wax ne ko wa rafaana laka zikraka ñaanu ko yàllaa ko may yàllaa ko wax ne ko inna fataxna laka fatxan mubinan li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taaxara ba tey yàllaa ko ko may maqaama xabib moo gën a foor xalil donte yonent bi la xabib la kalim la shakur la xalim la moom la bàyyi di indi moo tax mu ne xabib yi sama soppi xabibullahi mooy soppib yàlla bi muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa huwa moom xaliluhu ba tey mooy xaritam wa adraktuhu fekk naa ko ruuxan muy roxo naka isa fekk naa ko muy kaliim naka muusa wa muxtafan di topp fekk naa ko muy shakuur bu la neexee shakuur kuy aji sant waaye bu la neexee sax fekk naa ko muy shakuur ni ki nuuxun alayhi salaam ndax dañu wax ne nuux dañ koo tuddee shakuur lu tax maa labisa jadidan aw daaqa taaman illa xamida allaha moo tax ñu tuddee ko shakuuran kon shakuuran gi mën naa firi rek kuy santkat ndax yonent bi santkat la ndax daf doon julli ba ay tànkam yi di néwi ba sayyidatuna Aïcha ne ko lu tax ngay def lii mu ne afala akunu abdan shakuuran lu tax ngay def lii te yàlla baal na la say bàkkaat yépp ma taqaddama minha wa ma axara mu ne afala akunu abdan shakuran ndax du ma nekk jaam buy sant boromam comme shakur la koo xam ne dafa sant boromam doonte wér na ko ne ko boromam baal na ko nangul na ko may na ko ba wax ko ne ko danaa la may ba nga doyal waaye bu la neexee nga ne shakuran comme nuuxun wa min ko wa min nuuxin wa ibrahima moussa wa isa ñooñu ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole na leen seeni jotaay xaliman inna ibrahima na ibrahima nekkee xalim yonentu bi kaana xaliman ashaddu naasi xulman xilman moo tax ba seydna omar fekkee arab yi buy wax ne ndax kii mooy fenkat bi wax ne yàllaa ko yéen seydna omar da ne daf koy rey yonentu bi daf ne ko ala rislika kaadal xalimu an yakuna nabiyan ku ku ku ku ku ku teey ku lewet tuuti kon mu nekk ab yonent nga xam ne xilmu ci xususiyaat al anbiyaa la bokk ke duaati ilallahi tabaraka wa taala ñi oote jëm ci yàlla dañ koo dañ koo soxla mustaxaatan muñ koy xettalikoo koo xam ne nii dañ koy xettalikoo yonent bi sallallahu alayhi wa nañ ko ci àddina ci nekkam ci àddina waaye ni ngi koy xettalikoo ba léegi moo tax arab yi bi nga xam ne dafa ñëw di ziyaare yonent bi sallallahu wa sallam di wax ne yaa xayra man dufinat bilqaa'i azumuhu fa taaba min tiibihinna alqaacu wal akamu nafsi fidaaun li qabrin anta saakinuhu fiihi alcafaafu wa fiihi aljuudu walkaramu kooku arabi bi dafa am koo xam ne mu ngi doon nelaw foofu at bi mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne ko dabal arabi bi nga xam ne dafa ñëwoon pour jéggalu yàlla yàlla jéggalul ko ci bunte bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ne ko bégal ko ne ko yàlla baal na ko ay bàkkaatam bayti bi bayti yi moom ba léegi Euh, euh, euh, muwaajaha bi ya fa nekkoon yu bëri jële nañ ko fi waaye ba léegi bayti yi moom ma ngi fa ba ba fa yoon bu mujj xawma ma ba juróom benn weer yi waaye ba ba yoon wu mujj bayti yi mu nga fa loolu pour wane ne yonent bi mustaxaas la ba léegi nit ñaa ngi jottalikoo ci moom di gis ay karaama yoo xam ne nii kenn amul kenn xamul nu mu am Cheikh Ibrahima wax na ci bind na benn leetar Seydi Ali wax ko ne ko masta ñaan yàlla dara ci bunti yonent bi ci guddi gàmmu lu ma yàlla may na ko kon yonent bi ba léegi mustaxaasan wa malja'an wéeruwaay la raufan rahiman kooku moom yàlla ci boppam moo ko ko tuddee laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bilmuminina raufun rahim te rauf tur yàlla la rahim tur yàlla la waaye yàlla tabaraka wa taala moo tuddee yonent bi ne bil muminina raufun rahim ndax yàlla moom inna allaha binnaasi la raufun rahim waaye yonent la wax ne bil muminina raufun rahim xayru man taxannafa ku gën ci koo xam ne nii moo tegu ci yoon wu jub bàyyi yoon wu dëng muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam Hmm? loo teg wa awalu kullil muslimina xaqiqatan mooy njëlbeeni mbooleem jullit ñi ci dëgg-dëgg wa awalu man aada mooy ki njëkka noonoo asharika aji bokkaale wa an fa tatal ci bokkaale ndax yàlla nee na ko qul inna salaati wa nusuki wa mahyaay wa mamaatiya lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi dalika umirtu wa ana awalul muslimin yàlla nee na ko neel sama julli samay jaamu sama dund ak sama dee lépp yàllaa ko ñeyal ku àgg foofu kenn àggut ci dayo boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àgg nga xam ne yàlla moom biiram moom biteem moom dundam moom deem moom julleem moom ay jaamam moom léppam moo tax kaana yazkurullaha ala kulli axyaanihi daf daan tudd yàlla ci mbooleemi ci mbooleem xaalam yi ci mbooleem xaal la doon tuddee yàlla moo tax ba ko yàlla ne waxal ne sama julli sama jaamu sama dund sama dee sama borom moo ko moom kii yàlla rabbil alamin kay borom mi ndeefi laa sharika lahu bokkaale wu ma ko dara mu daa wax ne wa ana awwalul muslimina maay njëlbeeni jullit ñi kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy njëlbeeni jullit ñi mooy njëlbeeni jullit yi ngir dayoo fi mu àgg ne desalut dara lum moom léppam yàllaa ko moom mooy njëlbeeni jullit ñi ndax moo njëkk gëm ndax kii wax ne kuntu nabiyan wa aadamu bayna al maa i wa kooku ba muy gëm yàlla boobu aadama moom amagut kon nabi aadama yi amaguñ balaa qaala fi moo njëkk a wax balaa awala burhatin ci njëlbeen nag waxtu wa qaalatu kullu rusli kullun law ixtifa law ixtafa yonent yëpp door koo wax ñoom ñëpp moom lañ topp fa adxaa imaam al mu mujj di seen imaam fa tilka hum loola la seen wa zalika mamduux kii nag mooy ki may tagg sama kawe na wa tasharafa te kawe ak teraanga moo njëkk a wax balaa te yàlla nee na amana rasulu bi ma unzila ilayhi min rabbihi wal muminuuna door ko wax yàlla ne woon na yonentu yi wa id axada allahu mithaqa nabiyina lama ataytukum min kitabin wa xikmatin ma jaakum rasulu musaddiqan lima maakum la tuuminunna bihi wa la tansurunna qaala aqrartum wa axadtum ala dalikum isri qaalu aqrarna qaala fashhadu wa ana maakum min ashahidin yonentu yépp yàlla jël na ci ñoom kóllëre ne buñ dajeeg yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam danañ ko gëm danañ ko dëggal danañ ko dimbale mane ne dimbale bi mooy lan dimbale bi mooy topp yoonam ndax moom yàlla doy na ko ndimbal waaye bu ko yàlla waxee ne walay ayyadaka bi nasrihi wa nii muminina yàlla la dimbalee ci ndimbalam moom yàlla dimbalee la way gëm yi mooy ñu topp yooni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee yàllaa ngi wax ne ndimbali yàlla in tansurullaha yansurkum te yàlla soxlawu ndimbal ndimbal yàlla mooy nga topp li yàlla bëgg mooy dimbale shariat yi mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dimbale yonent bi ci mooy nga topp yonent yëpp yàlla jël na ci ñoom kóllëre ne bu ñu dajeeg yonent bi dañ ko dëggal dañ ko gëm dañ ko dimbale yàlla ne ndax nangu ngeen ñoom ñëpp ñu ne nangu nañ yàlla jël seen kóllëre ci loolu yàlla ne seede leen maa ngi ànd ak yéen ci seede loolu kooku kon mooy ilimaan yi yonent yëpp mooy seen te ilimaan googu yàlla dëggal na ko ci isra ba nga xamee ne dajee naag yonentu yépp mu jiite leen pour saxal ba tey ne moom mooy seen njiit lahul aayu lahu ñeel na ko al aayu ay aaya muy alquran tabqa aayu jamu aayatun tabqa dafay des البصيري وخدامت لدينا فاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم yonentu yi ñoom ñëpp seeni kaawteef yàlla jox na ko yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamee ne bàyyi dana ko wax wa kulluhumu bahrun min al ilmi daaxirun wa kullun la daa baxri al amini gadiru bàyyi nee na ñoom ñëpp ay ay ay ay géeji xam-xam lañ yoo xam ne mu ngi ay duusam yu ngi dóor waaye ñoom ñëpp boo leen xiyaasee ci géej ak yonent bi dañoo mel ne ay xond xond moo tax mu waxoon ne alima ala albahri almuhiiti wa tatruka sawaqiya laa tujdi zamaan liman shaka ngeen la dem leen ci océan bi mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te bàyyi yi nga xam ne manta màndil mandil aji aji aji mar baleen xond xond yi dem leen ci baxrul muhiit bi muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom nga xam ne bàyyi tagg na ko feneen ne bihi rusdu wal aqtaabu haamu wa urshidu mooy ki nga xam ne yonent yeeg xutbu yéeg ñoom ñëpp moom lañ bëggoon yàlla jubal leen waqad taraku min baadi da baxrahu rahwa waaye jugee nañ fi bàyyi géejam googu mu nekk géej goo xam ne ba léegi mu ngi dal turkil baxra rahwan géej danaa nekk te fekk dalu bu boobaa du neex a féey géej ak yonent bi bàyyi mu ne ba léegi mu ngi fi sallallahu alayhi wa sallama te mu ngi dal bu la neexee aji feey mu feey bu neexee aji naan mu naan boo buggee lab labal moo gën a baax sax lewul aayu tabqa ay kaawteefam dafay des yonent yëpp seen kaawteef dem doon ñëw di dem ay kaawteefi Muusa bëri na da koy dégg rek xetam baag jaan baag amul fenn foo ko mën a gisee tey tey kaawteefi Isa dekkal way deeñi kaawteefi Ibrahima kaawteef yooyu yëpp dem nañ ànd ak ne kaawteef yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa am na ko ba pare nag yàlla bàyyeel ko kaawteef bi nga xam ne nii mooy alquran ñaate ñaata junney kaawteef la alquran mën na juróom benn junney aaya te ñetti aaya ju nekk mucjisa la ñetti aaya ju nekk naa ataynaaka al kawsara mucjisa la kenn mënu ko wax kenn mënta wax ci arab lu fasaaya noonu kaawteef yi ñi fi jaaroon seen kaawteef yàlla daf leen di defal kaawteef seen nit yi jamono lañ gën a soxla nit yi Moussa njabar rek soppi bët yi yooyu lañ mënoon yàlla may muusaa kaawteef bi nga xam ne not na saxaratu firawna Aïssa docteur moo doon seen mbir yàlla may Aïssa moom muy dekkal ay néew di waxloo ay muuma di gisloo ay gumba yonent yàlla mu nag nak alayhi wa sallam arab wax lu fasaaxa rek moom lañ bëgg am na ci ñoo xam ne alquran gëmewuñ ko lu may fasaaxaam gi am na ku dégg fasda bi ma tu'mar wa arid anil mushrikiin mu sujjóot ne xam ne lii du waxi nit Utba dégg nga ko ba muy wax ak yonent bi ba mu del see dafa ne li ma dégg du waxi nit ñu ne ko njabar na la mu ne du njabar wéykat la mu ne du wéy ndax man naa xam naa xasaj xam naa basit xam naa tawil xam naa waafir lii du wéy wax la xam ne suuf si am na am na ren am na meññet loolu yépp ci xam wax ju baax rek ci lañ xamee wax yonent bi sallallahu alayhi ànd ak ñoom liñ xam-xam wax masu ñoo wax ne yonent bi sa alayhi wa sallam li muy wax nii wax ji jaarut yoon kenn ci ñoom masu koo wax ñi gën a saay-saay tey ñi ñi ngi fonk wëy ñi fonk wesar alquran wesar la boo xam ne ku nekk xam ne ne du wëy ndax wa maa allamnaahu shi'ra wa maa yanbaghi lahu waaye léeg-léeg yàlla dugal ci cabaxal ci ay baat yoo xam ne dafay tollu wéy fekk duhut wéy mu am fasaaxa boo xam ne arab masu koo am te ci seen biir la juddoo waaye ne lahul aayu tabqa axiri dahri te ànd ak loolu yépp yëpp ah, mujisa alquran nekku rek ci fasaaxa baat yi waaye mujisa alquran moo ngi nekk ci tim alquran mas da wax dara taarix ñëw weddi ko alquran mas wax dara xam-xam weddi ko nit mooy dégg ci mooy wax déggam ci alquran taarix weddi déggam boobu waaye alquran taarix masu ko weddi xam-xam masta wax lu alxuraan di weddi borom xam-xam ju nekk am na lu muy gindeekoo ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wax ne seydna ali dafa laaj yonent bi ndax na dana am mu ne ko na dana am bu fitna amee nu ñuy def mu nekk ko jàpp nañ ci téere bi yàlla bi bu nga xam ne buum gii mu ngi ci loxol yàlla buum gii mu ngi ci seen loxo mooy téere bi nga xam ne du ràpp mukk ngir yàggee jàng waaw musique bi dafa sàppi ñu ko gën a bëgg ñoo koy wax alxuraan duñ ko jàng ba mu sàppi ñi ko gën a bëgg ñoo ci gën a ñoo koy gën a mar bët bu set Cheikh Ibrahima radiallahu anhu moom mi nga xam ne ci commencement am ndax ca fanweeri atam ci la waxoon ne yàlla jox na ma ñaari sëriñ sama sëriñ ci zaahir mooy alxuraan maanaam shariatu muhammadiya moom laa topp li nga xam ne nii maa ngi koy jëriñoo ci baatin sama sëriñ muy Cheikh Tidiane du tàggale koog man alquran bi nga xam ne mu ne mooy sama sëriñ ci zaahir nekkul ci kaw suuf koo xam ne moo ma gën a dégg téere boobu nekkul ci kaw suuf dem na ba ba mu jëg dundam imaam Xasan nee na bàyyi nee na ko bu ma dundaatoon danaa firiyaat alquran ndax am naa ci ay dégg yu bees moo tax li yonent bi sallallahu alayhi wax ne alquran boroom xam-xam yi duñ ci suur du ràbb ngir njàng kee jàng mooy téere bi nga xam ne ah, jinne yi bañ ko déggee mënuñ lu may ñu wax ne inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi gis nañ alquran ju xéeme boo xam ne dafay juble jëm ci njub ñi ko bokk na ci mojisal alquran njub gi nga xam ne ci lay juble bokk na ci njubal alquran na nga xamee ne noonu lay nooy lay xol la yàlla wax ne law anzalna hada al a ala jabalin la an xaashian mutasaddian min xashyatillahi comme mën naa def doj noonu moo tax da nga gis xol boo xam ne xol bu dëgër la ba mel ni xoli Seydina Omar ñi jàng euh, surat Taaha jàng suratu Rahman mu ne téere bi il faut mu gis ko rakkam ne ko doo ko gis ndax yow laabuloo il faut nga laab mu door koo jàng la nooyal xoli Omar boobu nga xam ne dafa meloon alquran jooju nga xam ne moom la yàlla wax ne ñu ko wàccee woon ci doj mu nooy moo tax man naa bokk na ci lii saafara saafara euh, euh, saafara xol yi bàyyi ne ndax da nga gis minal aayi maa yabqa ka aayaayi Mustafa ndax nga gis ci kaawteef yu kaawteef bu des ni kaawteef yi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam am na benn xutba bu mu def mu ne kàccoor bi Senghor sax nee na ma néegam alquran a nga fa weñ yaa ngi koy jàng ñëpp a koy jàng téere yaa ngi koy jàng fi mu ne nii eh, téléphone boo gis ci téléphone yi rek mu ngi ci alquran a ngi ci loolu yëpp pour dëggal li yàlla wax yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne dana garder quran inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafidun ñoo wàccee alquran ñoo koy garder ñeneen téere yi seen téere yi yàlla ba wax ne ñoom ñoo koy garder bi ma soxbidu bi min kitaab bi ma soxbidu min kitaabillahi li leen yàlla loo ñoom la yàlla gardeloo seen téere bu buñ lottee téere bi dem alquran nag yàllaa ko gardeel boppam a lay boole ci sëriñ daara yi ñi nga xam ne ñoo fi ëpp coono te amuñ fay sëriñ daara buy fayeeku million amagut bu yëf yi baaxoon dañ ci àgg bu yëf yi baaxoon sëñ daara dana am million sëñ daara dana am 4 4 teñ bàyyi bu bu sëñ daara yi sonnee ba taril xale yi ñu jël seen xaalis bi di ko séddale ci kanam nit ñi ne ñëpp d'accord ne bu sëriñ daara tarilitee dañuy jël xaalis bi jox ko sëriñ daara ba jox ko daara ja waaye bàjjen ji nijaay ji Eh, eh, ku nekk am ca loolu daal defe naa ne bu ñu muusee ko bàyyi fasa zikru bàyyi ne tudd wii mu alquran ndax yàlla nee na yonent bi wa innahu la zikrun laka wa li qawmika sawfa tusaluun alquran bokk na ci turi alquran yi zikr alaab yi dañuy wax ne kasratul asmaa yi tadullu ala sharafil musamma alquran am na lu mat Euh, juróom fukki tur ak nangam waaye turam yi gën a siiw mooy alquran ak furqaan bàyyi na ñaari tur yooyu gën a siiw moom la jaam bu xam boromam soxla mooy alquran am na ñoo xam ne dañ koo jëree ci xara ab yi firi jàng bàyyi na buñ ko jëree ci xar u bi firi boole jëree furqaan ci farqu bi firi tàggale jaam bi dafa war a jeex ci yàlla ba du mën a ba du mën a tasawur nekk ak leneen lu may yàlla mu ànd ak teggini péeb yàlla bi ba jox ma demba xàqam ma sàmba xàqam jox julli yi jox oor yi xàqam moom bakkanam topp yoon yoon ci àlla muhammad sa alayhi wasallam bàyyi na bu boobaa boole na ñaari turi alquran yi gën a màgg mooy alquran bu ñu ko jëlee ci xar u firi boole ak furqaan bi nga xam ne mooy firi tàggale téere bi nga xam ne ragal gi mu ngi ànd ak moom ci dappet ndax ragal gi yàlla dimbale yonent bi salaay salaam nu surtout bi rox bi masirati shahrin bàyyi nee na loolu moo tere noonu lislaam yi faagaagal jullit ñi loolu mu ngi ànd ak alquran di ko wëttu bàyyi na naka nga gisee jamul xajiji mboolooy xujaaji ala safa ci kaw safa ak marwa loolu it muy li nga xam ne dafay tegtale dalailu laa tabqa laa tulfa li gayri nabiyina ay tegtal yu wér yoo xam ne kenn du ko fekk mu ñeexal keneen ku may yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi xalqin wa xuluqin indahu fa mu bari xadañ na xafaa ëbbatu yonent bi sallallahu yàlla matal na ko ci bind nga xam ne ku xamut lu may bindab doomi aadama bu mat rek boo gisee da gis nit ku mat ku taaru koo xam ne kuy bëgg lu taaru danga ko bëgg te nit ñi yàlla def leen a bindee bëgg lu taaru yàlla taaralal ko cosaanam saara sànnal ko baay tànnal ko ay ndey ibnu abbas ne limal naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam juróomi ndey ak baay yoo xam ne masuñoo jaar ci njaaloo yàlla tànnal na ko roxumi jigéen yu mu war a jaar tànnal ko ndigg góor yi mu war a jugee wa taqallubaka fi saajidina tànnal ko cosaan bu wér xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam turi baayam bi sax siiwut ci jamono jooju Abdullahi la tudd siiwut ci jamono jooju yàlla tànnal baayam fegu gi mu ko fegal ba nga xam ne ndaw si ko gis gis leer yoon ci moom di ko sàkku lu mu ko wax ama alxaraamu fal mamaatu dunahu alxillu laa xilla fa astabiinahu fa kayfa bil amri alladi alxurru yaxmi irdahu wa diinahu fa kayfa bil amri alladi tabgiinahu def lu xaraam daal dee sax ko tane ku dem ba emale def lu xaraam ak dee te kooku boobu duut ab yonent loolu da nga gis ne ci irxaasaatu nubuwa la bokk ndax li yàlla xadoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam la comme lu xaraam dee ko gën te li nga may oo xalaalu daganut ba ma mën a koo def te as gor dafay dafay dafay dafay sàmm deram kon daal yow li ngay sàkku mënta nekk loolu ci xadu gi yàllay xadul yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam tànnal ko beledul xaraam muy makka tànnal ko muhaajirahu muy madina nga xam ne mixraabam bi nee na ala turatin min turaati ljannati mu ngi ci kaw géej ci géeji jànn diggante néegam ak rawdaam bi mu ngi ci àjjana amul dëkk bu sellee ni madinatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam fenn yàlla lu nekk la ca gën la tànnal yonantu bi bu makka gënoon yàlla du tànnal du du toxal mukk yonantu bi yóbbu ko medina yooli màkka yi yooli màkka la dëkk gi yonantu bi dëkk yi medina loolu jagleeg medina la yàllaa ko jagleel medina medina nga xam ne ñu doon hijra jëm fa nit hijra na jëm medina te àggut rey boppam ci yoon wi yàlla baxal ko ngir ne dafa gàddaayoon pour jëm ci Madinatul Munawwara jàngal ci saxiixul muslim da nga fekk mu indi xadiis yi baabu qaatili nafsihi laa yukaffaru ku rey boppam du tax ñu ne xéeféer la def na bakkaat bu mag nag ndax rey sa bopp moom bakkaat bu garaaw waaye imaam muslim ba muy indi tegtal ci loolu dafa indi saxaabi yi bi nga xam ne dafa ànd ak saxaaba di gàddaay jëm Madina biñ demee ba ci yoon wi sibru dal ko munta muñ mu dagg yee di yadihi dagg siddi ca eh, loxoom bi maanaam mu xaru dee ba mu dee nag saxaabi yi bi mu àndoon nag yàlla wan ko ko ci gént gént gi nga xam ne du gént benn waaye gént saxaabi yu la gént guñ nettali yonent bi la sallallahu alayhi wa mu wax ca lam ca wax saxaabi bi nettali yonent bi ki mu àndoon nag di gàddaay ne bañ demee ba ci yoon wi daal feebar daf koo dab munte muñ feebar bi xaru na rey na boppam waaye daf koo gis ci nelaw nag ne yàlla def ak yow mu ne ko yàlla baal na ma ngir gàddaay gi ma gàddaayoon jëm dina agut de yàlla daf maa baal ngir na maa gàddaayoon jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah waa ji nag mu ne maa ngi gis mu ngi muur loxoom bi ma ne ko sa loxo bi nga muur nag mu ne ma loxo bi daal yàlla daf ne ma comme loxo bi yaa ko daggal sa bopp defaral ko sa bopp waaw ba saxaab yi ne teel bi xadis ji yonent bi ne allahumma wali yadayhi faxfir yàlla baxalal loxoom yi allahumma wali yadayhi faxfir lu muy firi mooy ne yàlla baxaloon na li ci des yàlla baxalal loxo yi te kooku daf doon gàddaay jëm Medina àggul Medina mu rey boppam moo tax dara amul noonu dalailu ka shamsi bi xalqin wa xulqin ci jikko ci bind kullul kamaali wa jumlatul jamaali moom la yàlla booleel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax xasaan wax ne wa axsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talidi nisaau xuliqta mubarraan min kulli aybin ka annaka qad xuliqta kama tashaau yàlla def na ko mu bind ko xasaan nañ dàq wéy waaye man bu ma doon wax damay wax ne ka annaka qad xuliqta kama yashaau yàlla la bind ni mu ko neexee moom yàlla rek mbind bi jëmmam dafa mat dara manqué wu ci wa xulqin yàlla may ko nag jikko bi nga xam ne yàllaa ko tagg na nga ko innaka la ala xuluqin nga xam ne jikko jooju rek ñu bëri jikko boobu rek moo leen àggale ci lislaam loolu rek doy na ci wax ni moom ku ni moom ku muñee ni moom ku ni moom ku bëggee yàlla ni moom ku ragalee ni yàlla ni moom ku dalee ni moom ku amee kóllëre ni moom ku jàmbaaree ni moom amut ci benn mindeef boo xam ne mindeef yàlla la ku doyloo ni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam amut fenn koo xam ne wa raawadatu jibaalu shumma min dahabin an nafsihi fa araaha ayyama shamami wan nañ ko sax doj yi pour defal ko ko or waaye dëddu na walis loolu ndax xoolut jëm ci àddina yonent bi sallallahu alayhi wa alal ju bëri ñëw na këram mu tëdd ba guddi fàttaliku ne am na lu ci des mu oo Bilaal ne ko tàggale ma lii tàggale ma ak lii nit baax na ba sonn waaye àggut foofu nit baax na ba sonn waaye àggut ci nekk ak yonent bi sallallahu alayhi mu am saxaaba yoo xam ne ay milliardaire lañ yàllaa leen feesalal muy tegale ñaari weer yoo xam ne saxaaba yi ne doo fekk ci néeg yonent bi loo xam ne fees na ébétu bilaal ci lekk loo xam ne euh, poqataani bilaal sax attan na ñaari weer yoo xam ne duñ taal ñaari weer yoo xam ne duñ taal tàndarma rek ak ndox te moo tax yàlla bind lim bind yépp jëlalee loolu waaye mu ngi am ay saxaaba yoo xam ne ñu ngi fees ak xaalis te yàkkamtiwuñ lu may mën a leen def leen nangam waaye yonent bi xoolul jëm ci ci li nit ñi amee xoolul jëmay li mooy nga xam ne moom la boromam amee ku bëggee yàlla ni yonent bi amut ku bëggee jaam yi ni yonent bi amut ku yërëmee jaam yi ni yonent bi amut sallallahu alayhi wa ku maandoo ni moom amut ku tabee ni moom amut ku mayee ba doo desal dara amut moo tax bàyyi doon ko roy ne wa nunfiqu laa nulqi nuridu siratahu ñun de dañuy dundale ba du dara du des daana def loolu dem ba amul dépasse ñu may ko ay millions mu maye ko mu ne loolu yëpp ma koy def rek ngir bëgg wér ne ma topp naa ci yoonu yonent bi sallallahu dañ doon aj tim ngir topp ko di julli ngir topp ko di oor ngir topp ko di teet yu ñaaw yi ngir topp ko di yërëm jaam yi ngir topp ko ku la gën a baax mooy ku la gën a jël ci jikko yonent bi sallallahu moo tax bàyyi ne man naw naa jullit bu nekk waaye sama naweel ci ñoom mu ngi em ci kenn niñ doonnoo ci yonent bi ku ci ëppale daal lu doon doonnoo ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kooku laa gën a naw kuy xool jikko wala ngay xool bind bu matee ni bindam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak jikko mel ni jikko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi nga xam ne dëgg-dëgg dara nëbbatawuti ñeexal ab noon walla ñeexal ab xarit ndax xam nga ne Abu Sufyaan bañ koy laaj ndax mas naa fen mu ne du fen boobu noon la woon ndax dana xuruj mu ne du xuruj boobu noon la woon lu mu leen di digal mu ngi ñuy digal fegu ak julli ak wax dëgg ak saraxe ak jokk mbokk lii ba tey ba xalaat ci xalaatkat bi am ci àddina ba léegi xalaatkat yëpp masu ñoo dëñ di wax ne jikko yi jikko yu baax la waaye am noonam moo saxaloon loolu bàyyi ne ay tegtal la yoo xam ne dafa mel ni jant bu leer na buur ñeexal kenn xanaa koo xam ne euh, gisuloo naka Ummu Jamil ba nga xamee dafa ñëw di seet yonent bi tamat koo gis ñu ne ko ah, Ummu jëmiil gisuloo mu ne naka la may gisee silmaxaay xol bi maanaa du jant ñooñu nga xam ne seen seen seen seen seen seen jàngoro amut amut saafara bàyyi ne waxuma la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñëwal ci ñim yar aruni ka amsaalil atiq wan ma ne wan leen ma ku mel ni atiq aboubacar siddiq bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jant tiimut ku gën aboubacrin yonent bi na maa fadlakum aboubacrin bi kasrati salaatihi wala bi kasrati siyaamihi walakin bi shay'in waqara fi qalbihi aboubacar gëneewu leen julli yu bëri te ku mën a julli la jëneewu leen or yu bëri te ku mën a or la waaye bi shay'in waqara fi qalbihi mooy gëm yàlla am gi mooy mbëggeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy óolu gim óolu yàlla ba nga xamee ne waa Màkkaa ngi werante yonent bi dem na Baytul Maqdis ñëw na ñu ne Abubakar fi gën a gëm waaye loolu du ko dëggal mu ne bu fekkee moo ko wax dëgg la ndax tukki feek Baytul Maqdis ay ñaari weer rek la waaye fukki dem ba ci asamaan yi nga xam ne ay junne ji at la kii koo xam ne dama koy dëggal ci xabaari asamaan bu ma waxee feeg baytul maqdis ma gëm ko yonent bi ma ne naa dem naa asamaan sax ñëw ci lañ ko tuddee siddiq kon kooku ana ku mel ni abubakar siddiq bi nga xam ne ba yonent bi ootee dundale seydna omar dafa wax ne luñ ootee abubakar man ma waaye tey de duma man man de tey su ma genn wàll alal gi laay yóbbu jàpp na ne kenn du indi loolu ba mu ñëwee fekk na Aboubacar li mu am yëpp ci alal moom la indi yonent bi ne ko koo koy bàyyee sa njaboot yi mu ne ko bàyyee naa leen yàlla ak yonentam bàyyee naa leen yàlla ak yonentam te jubluwut yoon mu dee yonent bi di amee waa de bàyyee naa leen yàlla ak yonentam mu ne dootuma dootuma dootuma dootuma rawanteeg Aboubacrine Seydina Omar ci jamono Aboubacrine Siddiq dafa am benn màggat bu nekkoon Madina war moo xam ne dafa tëlee lottu amut ku amee bés bu xëyee di ñëw di seet si màggat bi lu mu soxla bu ñëwee dana fekk li soxla yëpp defal nañ ko mu ne man daal tey danaa teel a xëy ba xam ku may jiitu ci mbaax gi kan mu xëy rond gis Seydina Aboubacar mooy génn ci boobu teg boobu nag moom mooy amee xilaafatul muslimin mooy xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi waaye mu ngi tal màggat moo xam ne parce que yoolam yàlla la bëgg am na ñu ngi ko defal am na kum fay mu mën koo def waaye ñoom dañoo jàpp ne ay jaam yàlla lañ dañoo jàpp ne ay jaam yàlla lañ naka yonent bi sallallahu alayhi daf daan liggéeyal jaam yi ak ku mel ni kaman gada sirajan defe euh, mu biñ mool noonu li li mu la def siraajan li sukkaanil ula dañ yàq baat boobu ñu defar ko siraajan li sukkaanil ula mën taxannafa ana kan moo mel ni ki nga xam ne mooy leer ak ñooñ àjjana muy Seydina Omar nga xam ne xadiis yi bàyyi ngi wax ne yonent bi ba ko Seydina Xasan Seydina Ali yónni leen ci Seydina Omar mu jox leen àddiyeem ñi béggal ko ci xadis jooju ne yonent bi sallallaahu moo wax ne Abu Bakr eh, eh, Omar ibn Xattaab mooy siraaju ahli jannati mu ne Omar ibn Xattaab dénkaane ne nañ ko suulaa ak léegi loolu bañ ko suulee kayit génn ne Xasan ak Xuseyn wax nañ dëgg jëlee nañ ci seen baay wax na dëgg jëlee nañ ci sang mbindéef yi mu yonent Yàlla Muhammad sallallaahu alayhi wa wax na dëgg ne Seydina Omar mooy siraaju ahli jannati xam nga am na koo xam ne léegi loolu mën na koo xool rek mu jaaxal te léegi nangu na ne lampe bi mooy leeral mbaar mi lampe bi leeral mbaar mi Seydina Omar leeral mbaar mi jumtukaay la bu yàlla jëfandikoo ci teraanga ki nga xam ne man taxallafa wutu na yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Seydina Omar Aboubacar la njëkk a tuddee xalifatu rasulillahi sallallahu Seydina Omar ñi koy wax xalifatu xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam gis ne loolu gudd na mu ñu mujj ne amirul muminina bàyyi ne ndax am na ab abqari yu kasiraaji ndax am na ab abqari yi bu mel ni Seydina Omar bi nga xam ne mooy siraaju ahlil ab abqari yu boobu bàyyi di wax jugeewut comme abqari yu Abbas Mahmoud Aqad nga xam ne ay abqari abqariyatu Muhammad abqariyatu Omar abqariyatu Nangam déedéet baat bi ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko jëlee mooy xaasiq maanaam ku ñaw ku xéwénal dara sëy sanu ko tubaab yi wax génie wala génie koo xam ne maanaam euh, fi ni ñuy jaar jaaru fa ba pare mu man li nit ñi mënut nit ñi jàng école ba sonn mu ñëw jàng ñaari baat ba pare di rawanteeg ñi jàng école bu ko defee ku mel ni Abbas Mahmoud Aqad moom abqar yi la loolu tax mu bugg abqar yi ndax moom ibtidaayee rek la am ba pare décatéré yi ñoo doon dajee këram mu nekk seen docteur di leen jàngal waaye mu ne abqar yi bi bàyyi wax ci Seydina Omar melut ni moom téeréem yooyu mu bind abqari yu fulaan abqari yu fulaan ndax abqari yi boobu ci nite rek la am waaye abqari yu bii bàyyi nga ko jëlee ci xadiis yu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama bi nga xam ne moo melal Omar ne gisuma walam ara abqariyan yëfri fariyahu ndax yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama dafa wax ne dafa gént dafa gént maanaam xilaafa lay melal dafa gis teen teen bu mag bu bari ndox mu gis Seydina Aboubacrin di root ci teen bi ci ay baag waaye zanub du baag bu mag mu ne fa taxawala fi yadihi garban baag boobu mu mujj nekk baag gis mooy baag bu fees dell muy muy xacc muy xacc ndox mi mu ne ma gis ci ci génneem wa fi nazihi doafun mu ne ci root bi Abubakar doon root gis na ne daal euh, duud root bu dëgër noonu fa xafara allaahu lahu yàlla jéggal ko maanaam xilaafa abu bakrin lay wax waxut ñàkk pas-pasam waxut ñàkk dëgëram ndax xam nga ne abu bakrin saddiq waxtu woo xamee ne am na am na taxawaay yoo xam ne nit ñi dañoo miin na seydna omar mooy ki dëgër waaye am na taxawaay yoo xam ne xaarat quwaa omarin fa waqafa abu bakrin waqfata rajulin ndax bañ na yonent bi sallallahu alayhi dee na Seydina Omar lu wax daf ne loolu ku ko waxati ma dagg sa bopp Seydina Aboubacar moo génn ne man kaana yaabudu muhammadan fa inna muhammadan qad maat wa man kaana yaabudu llaha fa inna allaha xayun laa yamut ku doon jaamu muhammad muhammad moom dee ku doon jaamu yàlla nag fa inna allaha xayun laa yamut jàng aaya ji maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulullahi wa xaatama nabiyin dégg nga ba jàng ne fa in maata aw qutila bu deexee mbaa ñu rey ko wa ma muhammadun illa rasulun qad xala min qablihi rusulu afa in maata aw qutila yàlla wax ne muhammad yonentu la yonentu jiitoon na ñeel bu deexee mbaa ñu rey ko seydna omar mu mel ni mu ne aaya ji mu ngi mel ni mu ngi door a wàcc foofu naa Omar jaaxle na ba xamul fu mu nekk ba wax ne ku wax ne yonent bi dee na ma la Abubakar taxaw ne yonent bi kay dee na yonent bi dee na jublu ci oyofal comme ni yenn ñu di wax ndax ba yonent bi bañ ko tëralee moom Abubakar ñëw na muri ko ne ko tibta hayyan wa mayitan yaa teey ci dund yaa teey ci dee Abubakar keroog ba nga xamee ne taxaw na pour xeex ak murtaddiin yi Seydina Omar jàpputoon ne loolu war a am la waaye Aboubacar moo taxaw ne képp ku fasale julli ak asaka man danaa xeex ak yow Seydina Omar door xam ne li yàlla leeral xoli Aboubacar loolu mooy dëgg kon Aboubacar ku dëgër la te Aboubacar moo gën a ci pooy ahlu sunna waaye yonentu bi sallallahu bi muy wax nii seen xilaafa la doon junju mu ne Aboubacar root root tuuti mu ne ma gis ci rootam ak xoyof mu ne na Omar nag jël baag bi fastaxaala fi yadihi garban Aboubacar moom ay zanub la doon rootee mu ne ma gis ne baag bi mujj na nekk baagab gis bu mag ci loxo na Omar mu ne falam ara abqariyan yafri faryahu gisuma ab xar ku xereñ ku mel ni kuy def ni Omar defee xatta daraba annaasu bi atanin maanaam ba ba ba xukuma islaamiya istatabal amnu nit ñi dal ndax xam nga ne eh, at yim def ci xilaafaam moo gën a bëri li xew ci xilaafam moo gën a bëri futuuxaat moo gën a bëri diwaan yim def yim beesal ci jamonom loolu yëpp la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon junju ma ne kon bàyyi fahal abqariyun kasiraaji juwut jugeewut ci comme abqari yu omar abqari yu ousmane waaye ci waxi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la jugee mooy abqari yu ndax am na ku xereñ ba mel ni siraaju li jën na bàyyi ne muy seydna omar abqari yu nag ci baati arab sax ci shuaraa yi ñoom dañ doon wax ne dafa am benn xur boo xam ne moom lañ tuddee waadi abqar xuri xur xuri jinne la boo xam ne ab xar moo fa dëkk maanaam bala ngaa woy sax maanaam ñooñ ñoo lay ñoo lay sol ñoo lay ñoo lay lay may wax yu seytaane nga nga mën a wax waaye li ma bëgg a wax mooy ne baat bi bàyyi wax noonu ci sunnatu muhammad la ko jëlee ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo junj xilaafa omar ne fahal abqariyun kassiraaji wal tara wal tara ndax danga gis li Ousmane ñeel Ousmane shaklan ndend ndax da nga gis ku mel ni Ousmane mi nga xam ne wax nañ ne aman wa qaanitun ana alleyli saajidan wa qaaiman yaxdaru alaxirata wa yarju rahmata rabbi ci Seydina Ousmane la wàcc Seydina Ousmane moom nga xam ne moom la yàlla may moom kenn ku yàlla masa booleel ñaari doomi yonentu te ñi ñaari doomi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentu may na ko doomam roqiyatu ak Umm Kalsoom may ko roqiyatu mu génn àddina mu may ko Umm Kalsoom loolu Seydina Ousmane la ko yàlla ma dafa waleeg Seydina Ousmane mi nga xam ne yonent bi dafa wax ci moom ne ndax du ma rus Ousmane mi nga xam ne malaaka yi dañ koo rus Seydina Ousmane mi nga xam ne nee nañ ci xaqam la waa ci aman wa qaanitun ana alleyli saajidan wa qaaiman yaxdaru alaxirata wa yarju rahmata rabbi ne daf daan naafilaay alquran yëpp ba mu jeex ba ko noonu yi gawee sax terewul mu ngi naafilaay alquran ndax wax nañ ne fekk na kaamil bi nga xam ne moom la doon jàngee fa seeg fii kawmullahu samiun alim ci la daanu mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mu ngi oor yonent bi ne ko ndax dangay dogee si ci man moo tax bëgg naa Ali ñaanee pour ñu dimbale ko moom sàkkuur ndimbal boobu duñ dugg ci wax jooju wax ji e, e, taarix bi gudd la waaye ana ku mel ni Seydina Ousmane ana ku mel ni naa Ousmane mi nga xam ne moom moo boole moo bindaat alquran ndax xam nga ne Seydina Aboubacar Siddiq moo bind alquran ñi def ko muy benn kaamil ci mu oote euh, abi xudaymata ci jamono na Ousmane nag xudayfatul yamaani bi nga xamee ne jullit ñi dañoo nekk ci xare ñi commencé di werante ci aaya euh, baati nangam nii lañ koy jàngee baati nangam nii lañ koy jàngee ñu commencé werante ci lu moom mu ñëw ne na Ousmane nga nga baatal umma bi bala ñoo werante ci alquran di leen tasaare te loolu commencé woon nañ ko ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax Seydina Omar am na ku mu dégg mu jàng benn aaya ci suratul furqaan mu pañe ko ne ko foo jëlee lii mu ne ko yonent ko jàngal mu ne ko nañ dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi dem ci yonent bi mu jàng ko yonent bi ne hakaza unzila unzila alqur'ana ala sab'ati ahrufin faqra'u ala ayyi ayyiha shi'tum wala tumaaru fihi yàlla wàccee ne alquran ci juróom ñaari xaraf jàngee leen bu leen ci neexee maan fekk yi ngay jàng am na am am am am na sukkandikuwaay te bu leen ci werante waaye ci jamono Aboubacar moo bindulu moo bindulu kaamil bi te loolu Seydina Omar moo ñëw ci moom gannaaw bu nga xamee ne ñi nga xam ne dee nañ ci euh, ci ci xarbu euh, euh, ridda lu mat sabiina ñoo xam ne ci xufaas yi lañ bokkoon te bindu ñoon kaamil bi mu fexe ba bindulu ko kaamil boobu des ci Seydina Omar gannaaw mu des ci xabsatu doomam ba ci jamono Seydina Ousmane ba julli ñi di werante nag ci jàng alquran te fekk ñu ngi ci xaswa nga xam ne ñi ngi war a jàkkaarloo songoog seeni noonu ñoom ci seen bopp ñuy xeex kooku ne Seydina Ousmane dabaatalal jullit ñi bala ñoo utee ci alquran di leen indil néew doole wala tanaaza'u fa tafshalu wa tadhhaba riihukum la yàlla wax Seydina Ousmane ci la oote xufaas yi ñi nga xam ne ñoo bindoon alquran ñoo mokkaloon alquran jël Zayd ibn Thaabit jiital ci ñoom ne euh, buñ ñu ci dara nag nañ ko bind ci luxatu Quraysh ndax alquran ci luxatu quraysh la wàcc ñi bindaat kaamil bi def ko juróom-ñaari nusxa mu yónnee benn ci Medina Munawara benn ci benn ci Makka benn ci Kuufa benn ci Basra benn ci Yemen benn euh, benn euh, ci Sham nga xam ne ba léegi boo demee Seydina al Xuseyn ci Qaahira da nga fekk Seydina al Usmaan kaamil Usmaan bi loolu tax ñuy wax euh, mushaf al Usmaani kon ku mel ni Seydina Ousmane loolu la bàyyi di laajte ndax jooju jëf nga xam ne moo ko jëf kenn defu ko Seydina Ousmane jaysul ostrati bi nga xamee ne ñëpp a ngi jaaxle moom moo dundale jaysul ostrati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw guddi ba fajar te waxul ne wax ne Seydina Ousmane rek la doon ñaanal guddeem googu yëpp ba pare teg ci ne maa dara Ousmane maa faala baadal yowmi Ousmane lu mu mën a defeti gannaaw tey du ko lor loolu ku ko amoon ci yonent ñooñu nga xam ne yonent bi ñoo leen yar da nga tukkal àddina waaye lu la neex defal te dara du la ci fekk te ñoo gënoon a tënku ñoo gënoon a baax kenn melu ni ñooñu mu ne Ousmane moomu nga xam ne zaakumu kooku seen muy Ousmane zeynikum seen ñaar ñooñu muy Omar ak Aboubacar xafaa la roy ñooñu la roy te yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam la roy wa man ka amiril muminina kan moo mel ni amiril muminina kan mooy amiril muminina fii wa sinwihi ki nga xam ne mooy doomi baay taxi yonentu bi sallallahu alayhi wa euh, sën wu mooy doomi mooy doomi baay tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a yónni Seydina Omar mu dem jëli mu dem mu dem laaji euh, jëli asak dañ daan seet koo xam ne moom mooy jël asaka yi jibaaye dem ci borom alal yi borom nag yi borom xar yi borom mbéy yi boroom gëléem yi duñ génnee lu leen neex ñi génnee asaka yi ba Seydina Omar delsee mu ne yonentu bi sallallahu alayhi wa ne ibnu jamil ak abbas ak xaalid ibnu walid ñoom ñëpp manau zakat maanaam imtanaaw an dafi zakat yonentu bi nag ne maa yanqamu ummu jamil illa annahu kaana faqiran fa agnaahu llahu ummu jamil de moom dara jàppul ko lu may defa ñàkkoon yàlla yàlla may ko ku ñàkkoon yàlla may la kay war ngaa uy si oote yàlla bi ne amma xaalidun fa antum tazlimuuna xaalid faqad ixtabasa adraahu wa ataadahu fi sabilillah xaalid kay da ngeen koy tooñ ne xaalid joxewul azak waaye xaalid mi nga xam ne mu ngi tëj ay mbubi koongam tëj ay ngànnaayam ci yoon yàlla kooku du ñàkk a joxe asak am na ñaari firi maanaam xaalis mi mën a joxe ba kanam ngir yàlla kooku du bañ a joxe asak wala est-ce que duun ne Xaalid dafa jël asakaam yi ne ndax masaarifi zakat bokk na ci fii sabilillahi muy jihaad nga xam ne ñu gën a bëri ci borom xam-xam yi foofu lañ ko amele am na ko yaatal yóbbu ko ci leneen ndax Xaalid dafa jël azakaam yi jënd ci ay mbubi koo ngam jënd ci ay xeexu waayam ba tey mun na nekk mu ne amma Abbas fa alayya wa misluhu Abbas man maa koy joxe ak ak duubulam sax mu ne Seydina Omar ama shaurta Abbas amu nabi mu ne ko ama shaurta ann amma rajuli silhu abihi xanaa xamoo ne ammu nit ki mooy nit ki bàyyi taxam mooy sinwu abihi moom la arab di tuddee sinwu moo tax baay baat bii biitim ci sunna la ko jëlee wa man ka amiril muminina wa sinwihi baatab arab la ñu jàng arab yëpp xam nañu sinwu mooy doom bàyyi tax wala mooy bàyyi tax koo bokk ak ko ko bokk ak bàyyi mu ne ko ama alimta ama shaurta anna amma rajuli sinwu abihi loolu dafa bëgg a wax Seydina Omar ne ko Abbas moom comme man sama baay tax la kooku moom asakaam maa koy joxe te danaa ko tegal beneen danaa ko tegal beneen nag lu muy firi waxkat yi am nañu wax ne nii na walla ki nga xam ne mooy jël asaka yi mën naa jël asakaay nit ki ren ak lépp asakaay déwénam dugalaale ko ci soxla yi est-ce que loolu la yonent bi defal Abbas walla ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bëgg a wane ne Abbas comme man mooy sama baay tax ba pare moom mu bëgg a oyofal joxe asaka moom bu nit ñuy joxe benn yoon moom ñaari yoon lay joxe ba tey mën naa firi loolu waaye ama shaurta anna am rajuli sunu abihi ndax xamoo ne bàyyi taxi nit ki moom mooy mooy sin wu baayam sën wu baat bi ci araab dañuy wax ne dafa jugee ci euh, naxiil maanaam euh, garabi tàndarma mën naa jebbi nii ba pare jur ñaari tàndarma ñaari garab yu mel nii fa la fa la sën wu jugee kon amul rajuli sën wu abihi léegi nag da nga dégg koo xam ne diw sa baay la mu naa ah, sama baay tax rek la sama magi baay la wala sama rakki baay rek la yoon bi fayal na bàyyi taxam bi ñaari yoon te ama sha'urta anna amma rajuli sunu abihi layal na tim xaalit ndax xaalit mi man a joxe ba kanam ngir yàlla kon daal du bañ a joxe asak ummu jamil daal moom la laal ci ay baat ummu jamil daal dara jàpp ko lu may dafa amutoon yàlla may ko ku amutoon yàlla may la da ngaa war a def loolu ku amutoon yàlla may la ku nekk war ngaa war ngaa jàngee ci loolu waaye xaalit daal da ngeen koo tooñ ndax moom joxe na dooleem yëpp ngir yàlla moo tax ba muy dee moom Xaalid dafa wax ne waaye ragal yi daal yàlla buñ nelaw ndax moom mi nga xam ne fu mu jaar ci xare amul fenn ci yaram bi foo xam ne jaase dëbbuñ ko fa walla fett téeméeri dëbbu dëbbu fett mu ngi ci yaramam yi te deexut ci xare yàlla natoo ko mu dee ci kaw lalam bi mu ne daal fala naamat ayunul naa yi ñi ragal daal yàlla buñ nelawati dafa bëgg a wax ne ragal daal jaru loolu yàlla bindalu du lay jot silwihi aliyu abi sabtini aliyu moomu nga xam ne nag mooy bàyyi ñaari cheikh yi aliyu baax na lool waaye yokk na ci mbaaxam gi ne mooy bàyyi xasan ak xuseyn zil qurbi kay borom ak jege ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne ay doomam yonent bi doomam yi góor dundañ doomi aliyin la def ñi ay doomam nga xam ne borom ak jege lañ borom ak wafaa lañ moom moomu nga xali yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ali ci ci moom mu ngi mel nii bimanzilati haaruna min muusa hmm? dalaa'ilu at muqniaatin ay tegtal yoo xam ne mujj na nekk loo xam ne lu doy la lu mën a convaincre nit la ndax bu fekkoon ne yonent bi sallallahu alayhi wa moom rek a baax yàgg nañoo gis ku baax waaye ku baaxal baaxal ba baaxal ku mel ni Abu Bakrin baaxal ku mel ni Seydina Omar baaxal ku mel ni Seydina Aliin baaxal ku mel ni Seydina Osmaan baaxal ku mel ni Seydina Aliin baaxal ku mel ni ñi des ci saxaabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne ñoom ñëpp ay biddiwi njub lañ bàyyi ne loolu dëgg-dëgg ab xarat ay tegtal la yu doy xel te yu xéem la yu xéeme la yoo xam ne lahaa ñeel ko in qaada la romatoo omatoo qissiisun ab qissiis koo xam ne nekk nañ ci kilifa ci yeneen diina yi waaye njub gi nga xam ne moom la yonent bi indi ak ñim defar ci ñooñu lañ jubee wa aslama te te te jébbalu man jëfaa ka tong yoon yooyu tegtali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegtalam moom ci boppam jikkoom moom ci boppam bindam moom ci boppam alquran jim indi sunnaam jim indi saxaaba yim yar yoon wi mu teg njub gi yoon wi jub njub gi nitam ñi jub defar bi mu leen defar fi mu leen jëlee ak fi mu leen yóbbu dëgg-dëgg bàyyi na loolu doy na tegtal ci dëggu lislaam wal quutu ruuxin salaati ndax am na hmm? wada diinu qad amal basitati diina ji matal na àddina yépp waxte laata kawe ala déyri ci diine yi ñi nga xam ne ñi ngi ci déyri bi di jaamu leneen lu ma yàlla raxman ànd ak coroxtaan rek min xusuumin ci ñiy xuloo mën na fa ak ñuy dàq wér ak diine ji ndax am na dund rooxo bu mel ni julli bi nga xam ne moom la yoon ci waxoon wa ju'ilat qurratu ayni fi salaati wax ne suñ diggante ak ñeneen ñi mooy julli ku julli rek bokkoo ci moo tax bàyyi ne olof sax ñoo ci noppal ñoppal ñoo ci noppale ñoom muslim moom julli lañ ko tuddee jullikat lañ ko tuddee boroom xam-xam yi dañuy werante ndax yeneen yi ku ko bàyyi xéeféer nga waaye ku bàyyi julli moom dañ la xéeféer nga bàyyi ne wal tara nadiran li ndax danga gis lu mel ni laab bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi nga xam ne laabak ndox gi dafay yóbbu ci laabal xol te laabak ndox daf lay jàngal ne la dëgg-dëgg bu fekkee borom bu tell bi bala ngaa dajeek moom sa yaram wii war nga koo laabal kon danga xam ne sa xol bitim war nga koo laabal rat na ci hadis ne kenn du taqoo njàpp lu may koo xam ne nii dafa gëm yàlla yontu bi sallallahu alayhi wasallam dafa dugg at àjjana dégg fa ay tànk mu ne tànkal kan la ñu ne ko tànki bilaal mu ne bilaal noo def ba jiitu mu ne ko masumaa jàpp lu may julli naa ci la ma julli la ma mën a julli yonent bi ne ko kon ci loolu nga jëlee loolu moo tax laab dafay fegal nit seytaane yent bi jàngale na sallallahu alayhi wa sallam ne nit ki boo xeewoo booy nelaw seytaane dafay ñëw takk ci sa gannaaw gi ay fas-fas tëfli ne yàlla nay gudd gu gudd ci yow mu ne boo eewoo yonentu ne boo eewoo da ngay ànd ak bakkan bu bon maanaam bakkan bu salte bakkan bu salte mooy boo xam ne pare na ci luñ ko oo ci mbenke njenke mu dugg ci mu ne boo jàppee benn toj boo tuddee yàlla beneen toj boo juglee leneen toj yontu bi jàngal nañu ba jàngal ñu loo xam ne àggagoo ci jàpp waaye ci buntab tuxur la bokk ndax mu ne boo eewoo nga sorox ndiku ñetti yoon ndax seytaane dafay fanaan ci sa xëyaasim yi firi ko noo ko mën a firee waaye boo sorox ndikoo ñetti yoon mu deñ xayaasim yooyu seytaane fanaan boo sorox ndikoo ñetti yoon mu deñ ndax ñetti yoon yi ci sa jàpp bi la wala ñett yoon yi ci la soroxndiku rek la bu la neex nga def ci bu la neexee nga soroxndiku loolu nga neexee nga jàpp kon amut lu mel ni njàpp aw siyaamin wala lu mel ni koor duñ toogaat di wax fii njëriñal yooyu yëpp duñ toogoon di wax xuutu ruuxin ka salaati ndax asalaatu silatun julli jokkoo la ndax Baay wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo rañaan guddi indi julli booy julli rek yaa ngi ci rañaan googu kon rendez-vous la ak sa borom loolu lu màgg la rendez-vous boobu bala nga koo def sa borom mooy ngay def toxru sa laab googu nga xam ne moo lay aayaloo deealeeg sa borom bàyyi nee na laabak ak googu daf lay àggale ci laabak ak baatin gi nga xam ne boo ci xasee ba àgg dootu toj ba mukk mooy sa xol bi xéwén ana lu mel ni xoor ci koo xam ne nii dangaa sell ndax xoor yàlla jëf yépp moo koy fay de waaye moo jagleel koor ne asiyaamu lii wa ana ajzi bi koor maa ko ndax koor yàlla rek lañ ko mën a defal kuy oor ngir nit ñi gis la da ngay génn ci biti doon naan boo duggee naan kon ooragoo koor yàlla rek man man koo def lu ñu def la ko alayka biha bàyyi ne alayka na nga jàpp biha ci julli tudd na yii yëpp waaye ba muy dénkaane at ci julli la ko delloo lu tax luy tegtale loolu far tarka an na tawaadu an la ci teg na nga ngir toroxlu yàlla ndax ne ida qumta min baadi alwudui murattilan wa tasjudu min baadi alrukuci muazami faqad tuwiyat anka almasafatu jahratan wasalta ila almahbubi kabbir wa azimi boo jàppee kabbar ihram rukoo sujood bàyyi ne na àgg nga ci borom bi ku àgg ci borom bi warul toonoo jëm ci leneen moo tax mu méngoog nga wax ne allahu akbar bàyyi ne duhut yàllaa gën a màgg kenn ndax yàlla nekkut ak lu muy gën a màgganteeg waaye yàllaa gën a màgg yow li nga foog ne dafa xam bay màgg li bi jullil nga def toroxlu sa borom yonentu bi waxtu bu ko dara jaaxaloon rek sallallahu alayhi wa mu jublu ci julli waxtu bu ko dara jaaxaloon rek ci julli lay jub julli boo amul foo boo loo ñaan sax julli bi man na laa indil faraj te yàlla xamal ne ñun ne salaat tanhaa anil fahshaa'i wal munkar te ñaawteef yooyu rek moo dax diggante nit ñi àgg ci yàlla moo dox tam diggante ñi àgg ci liñ bëgg am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam uridu liqal maaxi wa zanbiya xaajizi wa in yal xadil maaxi tuwil aqabaatu la bàyyi waxoon maa ngi bëgg a dajeeg bi waaye bàkkaat yi rek ñooy barrage yi waaye bu ma yonent bi gendee ko yàlla nañu gendee ñi ñi lemal ñu euh, barrage yi bàyyi ne boo jullee ànd ak toroxlu te rak tëm kii na danga gis ak jàppandal jàppandal gu la yàlla may ca yàlla bi wal qurba da nga gis jege goo jege borom bi te yàlla moo ko wax sujud waqtarib sujootal nga gën a jege yàlla da nga gis safa safa euh, safaul qalbi da nga ko gis te jaam bi waxtu wu nekkee ci safa rek waxtu woowu waxtu wu mu mën a doon waxtu nangu ñaan la bàyyi na wa man zaqa taama zikri wa sawmi faniyan ku mos lu tudd yàlla di saf mos lu xoor dëgg-dëgg di saf faniyan muy aji jeex ndax or yàllaa ko moom ndax yàlla du lekk du naan or ak amatu yi mooy ba bàyyi lekk ak naan ak wax lu xaraam ak ba jant fajar xare ba jant sooyee nañoo xam ne lekk ak naan rek lañuy bàyyi waaye terewul ñu ngi def benn njënke yëpp bàyyi ne or ak yi ñoom dañoo or ci lépp lu yàlla xaraamal mu ne or ak xaasatu yi nag ñoom dañoo àgg ci oor ci lépp lu dul yàlla moo tax mu ne was sawmi faaniyan ku mos loolu nag faqad zaaqat sirral mustafayna wa utxibaako boo àggee foofu mos nga mbóoti gaay yàlla yi nga xam ne tànn la leen mu dalee ci ay yonentam buñ jeexee wàllu yuy des nga xam ne buñ tëb tànneef googu tëjoogut ba léegi ku jaar seen yoon topp yonent bi topp yooni saxaaba yi topp yooni saalixiin yi di tudd yàlla di jàng alquran di saraxe di dundale ngir yàlla di teet yu xaraam yi di def yu baax yi di bëgg jaamu yàlla yi di dimbale koo mën a dimbale di baal ku la tooñ di jokk ku la dagg yëg rek yàlla éegal la ci jaamam yooyu nga xam ne foofu rek lañ jaaroon ba baax bihi wa ilayhi minhu fihi damir yëpp delloo na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ci yàlla boo demee ba àgg foofu bihi ci yàlla ngay defee ilayhi ci moom nga jëm minhu ci moom nga tukkee fii ci moom nga ne majaaluhu ak lefam lépp ci moom la jaa alxaq wa zahaqa albaatil daal moo taxaw baatil dem na dëgg moo des ku yàlla dëgg mënta nekk ak baatil daf koy maxq bàyyi na bi daa yunaalul qudsa ah yunaalul qudsu anqa wa anzafa ci loolu la jaam bi àggee ci péeb yàlla bi mu gën a sell mu gën a set yàlla amul barab jaam bee am barab bu jaam bàyyee barabam yi àgg ci yàlla walaysa yural qudduusu bil ayni innama bi ayni al ama wa saxqi wal maxqi wa tamsi taskaru mahma qad hamamta walam tazuq mudaaman fekk yaa ngi nga màndi ci naan ak pay boo xam ne jotoo koo naan nag la wax ne ibnu faari wax ne maa ngi ndokkeel gaaña waa pay ba màndi nañ te naanuñ ko xanaa dañ ko itteew rek hani andi ahli dayri kam sakiru biha wa ma sharibu minha walakinahum hamu hunaka taraahu bàyyi ne boo àggee foofu foofu nga koy gisee aw yaraaka xanaa boo àggut ci gis ko àgg ci mu gis la mooy maqaamu ihsaan bi yonent bi jàngale amal ihsaanu an taabud allaha ka annaka taraa in lam takun taraahu fa innahu yaraak ka annaka taraa dafa làmboo ka annaka taraahu wa yaraak ndax yow amoo bët boo gisee yàlla ki am bët mu ngi lay gis walla aw yaraaka boo àggut ci mën a teewlu ba mel ni yaa ngi gis yàlla na àgg ci muraqaba ba xam ne yàlla muttaliun ala jamii shuunik wa jamii umurik fala takun booba yow doo nekkati wa sax noppil wéyka toskare sa laa bul wax xasaari moytul am na foo xam ne boo fa àggee bul wax boo fa àggee bul wax ndax wax amu fa barab ñeneen ñi moomuñ ko boo waxee waxlu keneen moomut te gaañu ne الحلاجة كواخ من سارروه فأفشى السر معتمدا lam yamanu ala al asraari maasha kuñ yootal mu wax secret moo ko tey dootuñ ko yootal maanaam buntam ndoolee ndollal dafay tëj ñeel ko xasaar yi mooy xifan taxawal xifaa taxawal xifan xifan la waroon la doon wax bu taxutoon ak bayti bi xifan xifaa alif bi nuun gi la nuun gi la la remplacer nuunu tëkkiit xafiif danañ ko remplacer ci woy alif da dégg ci bayti ko euh, shaa'ir bi wax ne laa taabudi sheytaana wallaha faabuda laa taabudi sheytaana wallaha faabudan la doon wax waaye alif nuun googu moom la soppi alif comme ni nga xamee ne léegi itam ñu soppi alif nuun ci wéy loolu ñuy wax arab yi ñoo ko soxla te xam naa ne ñuy jàng siira rek ci lañ ne fi ne waaye xifan xifaa alif googu lu ko indi duut alifu isnayni waxul ne xifaa taxaw leen yéen ñaar déedéet xifan xifan la doon wax waaye bayt bi moo tax mu soppi nuun googu def ko muy alif muy xifan xifaa bihi wa ilayhi fii ah, ah? wa kassara asnaaman yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daane na ay xërëm ka misli xalilihi ni nga xamee ne ibrahim xalilullah daane na xërëm yi yi ay nitam doon jaamu tallaahi la akidanna asnaamakum baada an tuwallu mudbirin fa jaalahum jidaadan illa kabiran lahum laallahum ilay yarjiun nam daanee xërëm yooyu yonent bi sallallahu alayhi xam nga ba mu ubbi makka jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqan la doon wax fekk gannaaw aj gi nga xam ne aj ci lislaam benn la yonent bi def aj ci yoon jamono yonent bi ñaari aj la ndax aj na yoo xam ne abubakrin la jiital yónni seydina amar mu jàng suratu baraa wax ne laa yaxujju albayta baada alaami mushrikun gannaaw bi nga xamee na nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwaat na kon ba Abubakrin di aj Seydina Ali nekk ca umma bi nekk ci yonent bi ajut boobu aj googu fekk na xërëm yaa ngi ci néeg ba gannaaw gi ba yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaamu ko ci xërëm yaa nga fa ba yonent bi fatxu ubbee makka la daane xërëm yi te etam daf koy junju rek jaa al xaq wa zahaqa al baatil inna al baatila kaana zahuqan yi di daanu kon la Ibrahima def ci daame daane xërëm yi yonent bi sallallahu def na ko ba léegi yonent bi barkeem a ngi daane xërëm yi wa amsat mujj na bi taaxal naaru bardan bardan musharifa ni nga xamee ne seydna ibrahima dugal nañ ko ci safara yàlla na safara si qul naar yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahima eh, eh, eh, yàlla ne safara nekkal di sedd nekkal di jàmm ñeexal ibrahima bàyyi na bu ci yàlla tegutoon wa salaaman bardan bi mën naa loor ibrahima na nga xamee ne ibrahima alayhi salaam yàlla dugal nañ ko ci safara safara si lakkut ko yàlla may na ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kuñ dugal ci safara te safara lakkut ko ndax saxaabi yu yonent bi koo xam ne du saxaabi yi sax taabii la ndax dund na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallama abi muslimul xawalaani ci jamono yonentu bi sallallahu alayhi wa bi nga xamee ne eh, eh, aswadul ansi ci ñu oote woon yonentu la ci yaman dafa oote ne yonentu la bi muslim xawa xawalaani zuayb bin kulayb lay tudd moom moo njëkk a gëm yonentu bi ci yaman bi mu gëmee eh, abul aswad ne ko ndax seede nga ne hal tashhadu anni rasulullahi mu ne ko lam asma mu ne ko hal tashhadu anna muhammadan rasulullahi mu ne ko naam ashhadu annahu rasulullahi ndax da ngaa seede na nga man yonente bi yàlla la mu ne ko li ngay wax dégguma ko de mu ne ko seede nga ne muhammad yonente yàlla la mu ne ko muhammad kay yonente yàlla la mu jël ko dugal ko ci safara safara si defut ko dara yonent bi wax ko saxaaba yi ci jamono seydna aboubacrin seydna aboubacrin ba mu ko gisee mu ne fekk aswad al si dañ ko wax ne ko kii boo ko génneewut ci sa topp gi dana la yàqal ñi la gëmoon génnee ko fii mu dàq ko bi mu koy dàq ak bi muy bi muy ñëw Madina Munawara fekk na yonent bi génn àddina bi ko sedd Seydina Abubakrin gisee dafa wax ne maa ngi sant yàlla mi ma wan ci ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne la yàlla defal euh, euh, Ibrahima muy mujiza yàlla defal na ko ko moom muy karaama ci barke yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam naka noonu Seydina Omar wax na loolu safara tàkk na ci war munawara gannaaw yonentu bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi nettali na ko ne Seydina Omar dafa ne safara si euh, euh, yonentu bi nekk na fi ba jugee fi tàkkuloo fi lu tax ma nekk fi ngay tàkk xanaa damaa jubut yàlla yërgu safara si am na riwaaya boo xam ne dafa wax ne safara dafa ñëw ci madinatu munawara tamimu daar yi yaxuushuhu mu koy dàq di ko dàq nii comme kuy dàq xale muy dem di ko dàq di ko dàq ba safara si génn yëpp madina Seydina naxtafidu bika aw aw aw lii moo taxoon lii moo taxoon ñi lay denc xamoon nañ ne xamoon nañ ne bés bii dana ñëw ñooñu ay sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam abu muslim nag moom àggut sax ci saxaabi yu ndax gëm na yonent bi ci jamonoom waaye gisut yonent bi ci jamonoom wax nañ ne moom moo waxoon ne la nuzaaximanna asxaaba muhammadin sallallahu alayhi wa sallam xatta yaalamu aw yaarifu anna min waraihim rijal danañ buuxanteeg saxaaba yi yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi bañ xam ne bàyyi nañ seen gannaaw ay góor bàyyi nañ seen gannaaw ay góor te ñooñu yonentu bégal na leen ndax yonentu bi wax na ne jamono ngi ñëw qaabidu ala diinihi qaabidu ala alxajar ala am na jamono ngi ñëw ku jàpp ci diine mu ngi mel ni ku jàpp tey ci jamra ñu ne ko ndax ci ñun wala ci ñoom mu ne ci ñoom dégg nga te ñoom yàlla dana leen may ci seen yool yi ibaada juróom fukk mu ne ko ci suñ yool yi mu ne wala ci seen yool yi ñoom mu ne ko seen yool yi ñun yéen ndax yéen tajiduuna alal a awaanan yéen da di am ñu baax ñu baax yu leen di dimbale ci def lu baax te ñu seen jamono duñ fekk lu leen di dimbale ci def lu baax maanaam mbenke njenke yi fay bëri yàqu bëri caaxaan bëri eh, yu bon yu bëri bu yu bon yu bëree ku jublu yàlla yàlla mën na laa may yool yu kawe yooyu nga xam ne nii ñi nekkoon ci jamono yi gën a baax amuñ ko woon waaye ñi gën mooy ñii nga xam ne moom la bàyyi ñoom la bàyyi doon tudd muy sahabatu rasulillah salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waax yaaka isa dundal na comme isa ndax rod na ci sunan yi xasaais suyuti indi na ko jigéen joo xam ne nii dafa ci ansaar ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomam dee ñu ne xale bi dee na mu ne yow yàlla bu fekkee ne man maa ngi gàddaay fekk wax nañ ko ba ne dee na léegi pare nañ koo nanga nga yaakaar ak yoolab yàlla rek mu ne daal man fekkee ne damaa gàddaayee euh, euh, bàyyi kufru ñëw ci yonent bi yàlla daal sama doom ji bu ko jël euh, fekk doom ji dara desut lu may ñi sang ko jébal ko boromam mu jub loolu yàlla maye na ko ci barke yonentu yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon wa ahyaaka isa baada mawta li qawmihi te am na lu gën a mat ndax jembaraay yii jembaraay ji dund gisuñ ko waaye gis nañ jembaraay di sàbbaal ci loxo yonent bi ba ñëpp di ko dégg gis nañ téegam bi di sàbbaal ba ñëpp dégg ko gis nañ gis naxlati yi nga xam ne moom la doon sukkandikoo di xutba bañ ko defale min baram bi dafa nam mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jooy jooy jooy jooy ba mel ni gëlëm guy jooy ay doomam yum tàggale ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw tatafu ko mu door a noppi kon yonent bi lim dundal ëpp na li Isa dundal ndax Isa lu doon dee dund du lu doon dund dee la dundal waa yonent bi dundal na sax loo xam ne rooxo masu cee jaar wa axyaaka Isa baada li qawmihi wa bil massi naalal na kaza shifa ci laal ak loxoom rek way feebar ñi amee nañ ci saafara ndax loolu sidna ali ibn abi taalibin doy na ci tegtal ndax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaswatu xaybar ba yonent bi sallallahu wa sallam waxee na yàlla dana jox raaya ji ëllëg jaam boo xam ne bëgg na yàlla yàlla bëgg ko na ali mu ne seydna omar mu ne masu maa mébét falte lu may bés keroog yonent bi laajte ne ana ali ibn abi taalibin ñu ne ko dafa wànnentu wànnentu goo xam ne euh, jàppandiwul mukk mu ànd ak muy maanaam dem ci xare wala muy téye xare yonent bi sallallahu alayhi nañ ko oo oh, ba mu ñëwee mu tëfli ci ay bëtam mu mel ni masta wànnentu xataadata bi nga xam ne ni dañoo luqi bëtam ci xaswatu uxud ci li gën a siiw am na ñu ne badar la am na ñu ne xandaq la am na ñu ne uxud la ñi gën a siiw dañ ne Uhud la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jël bët boobu bàyyi nga koy nettali ci sira si yar bi ñëpp ñëpp dégg nañ ko ne yonent bi daf ko wax ne ko ma delloo la sa bët wala ma ñaanal la bëtëb àjjana garanté la àjjana mu ne ko ah bëtëb àjjana dëgg dëgg dëgg eh, baax na lool waaye daal man dama dañ ma eh, eh, indil ab seet bu bees daal boo xam ne bëggumaa dem ak foofu ak bët boo xam ne nii dafa yàqu yonent bi jël bëtam yi delloo ko mu ñëw ci moom moo tax Omar ibn Abdul Aziz wafdu dafa mas a ñëw ci moom mu leen di laaj ku nekk mooy kan mu am ci koo xam ne nii ñu nekk ci doomi Qataada la bokk mu ne ana alladi saalat ala alxaddi aynuhu wa raddadhu këffu lmustafa axsana raddi fa aadat kama kaanat li awali amriha fa yaa xusna ma aynin wa yaa xusna ma raddi mu ne doomi ki nga xam ne bëti baayam dafa rot ci lexam bi muy qataadata faraddatu këful Moustapha ahsana ahsana raddi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa tenqam bu tell boobu mu jël ko dellooxaat ko bët bi mujj mel na meloon wala mu gën a rafet ndax wax nañ ne bu daan wànnent sax bët bi yonentu delloo du ko du wànnent moo tax mu ne fa yaa xusna ma aynin wa yaa xusna ma raddi Omar ibn Abdul ne ne ko tilkal makaarimu laa qaabaana min labanin shiibat bi maa in fa aada baadu abwaala boobu bayti umayata bnu abi salt moo ko waxoon umayata bnu abi salt ci xanaf ni la bokkoon ñi nga xam ne dañ doon séentu ñëw ak yonent bi gëm jaamu yàlla ak wax na ay xikam moo waxoon bayti boobu waaye ba doomi Qataada te waxee Omar ibnu Abdul Aziz ne ko man maay ki maay doomi Qataada mi nga xam ne yonentu bee baayam ba bëtam yi rotee ci lexam yonent bi moo ko delloo gën caa rafeti delloo mu mel comme na meloon wala nu ko gën a rafet amul lu gën a rafet bët boobu waaye amul lu gën a rafet delloo googu mu ne ko tilkal makaarimu laa qaabaana min labani loolu mooy teraanga dëgg-dëgg teraanga dëgg-dëgg mooy lii waaye du ay kaasi meew yu ñu naan maanaam teraanga du mooy alali àddina am naa am am am am am xasr bu rafet ñu lay njaral njar yu neex nga naan ko te njar yooyu lum set set dafay mujj nekk ay ay lan saw tulkel maqaarimu la qaabana min labani shibat bi ma fa aada baadu abwala indi na ko moom ci tagg Cheikh Tidiane tilkal makaarimu la qaabana min labanin tilkal maka tilkal min ala al loolu mu ne ba muy tagg Cheikh Tidiane naa la Tidiane abul abbasi ayatin qad faaza minha xutubun bil karamaati ba ñëw ci ne tilka almakaarimu la qaabaana min libanin tilka alwirasatu min ala al loolu mooy ndonn gi gën a yëkkatiku mu jugee teg ci cosaan gi gën a yëkkatiku mooy Cheikhu Tijaani donn na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Omar ibn Abdul Aziz Sim lii la wax kii ne ko yow mii doomi Qataadata Qataadata mi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga ne Qataadatu se fekkee na fekkee na masaahid yëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax Omar ne ko sa baay moomu di Qataada lim am dëgg-dëgg loolu mooy teraanga dëgg-dëgg teraanga waaye teraanga du alali àddina yoo xam ne la nga cay lekk lum neex neex ay sobe rek lay mujj waaye lii mooy karaama ndax fi mujj mooy ngërmaan ak yàlla mooy dëkkaale ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Qataadatu moomu moo Abu Saïdin al-Xudri ñoo bokk benn yaay te bokkuñ baay. Suleymaanu Malkun ah defe baral affaire bi mu bu guddee ah. li mu saamiyaahum min ruxaamin tafajarat wa min kaffi xayri lxalqi saala wa nayafa Moussa xam nga ne <coughs> ah am na deux ah, mu ngi bëgg a yàgg ah euh, dafa euh, euh, xotti ndox mi jàll yàlla ay ndox sewnde di bale gannaaw bu mu dóoree xetam fan fa jar mina sata asharata aynan ay fukki sewnde ak ñaar di ballee ci xetam boobu nga xam ne moom la dóor yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kenn mas ta gis bàyyi ne kenn mas ta gis ndox moo xam ne dafay ballee ci diggante sidit ak deret ak yàpp moo tax wa min këffi xayril xalqi saala wa nayafa yonent bi nekk na ci gazwa saxaaba yi amuñ ndox muñ jàppee sax mu ndax am na ku am dara ci ndox bàyyi ne mu ngi nëbb mujizaat yi ñu indil ko dara ci ndox mu dugal loxoom bi ñu gis ndox mi di ball comme ay sewnde ñetti téeméeri nit ak lu teg ñëpp naan nañ jàpp nañ ñi bëgg a sangu-sangu nañ ci ndox mi ndox mi des loolu li Moussa am fan fa jara min usnata asharata aynan amoon na ko Moussa amoon na ko gannaaw boo xamee yàlla daf ne ko dóoral sa xet bi waaye xam nga ne ndox muy balee ci diggante yax ak yuux ak sidit ak yàpp dëgg-dëgg moo gën a euh, kéem kéem kéemaane loolu dañu wax ne ndox moomu nga xam ne mu ngi balee ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam këyit ma tegoon fi loxo yonent bi sallallahu alayhi wa ndox moomu dëgg-dëgg mooy ndox moo xam ne nii mu mu mu mu mu gën a sell ci ndox yi wax na ko feneen fi Muusa kalimun qad saqa allahu qawmahu bihi faada maun min ruxaamin murabbaci walaysa yuxaaki ma araana muhammadun saqaana bi ma in saala min bayni asbuci wa bacda infilaaqi albaxri shaqa muhammadun lana qamaran fawqa alhawaa almurafaci bu fekkee ne Muusa moom ndox la qoti yonent bi iqtarabati saatu wa inchaqa alqamar ñaan nañ ko mu xotti weer wi ñëpp gis ko waa Màkka yi ne suñ bëri lay njabar rek waaye bu tukkikat yi ñëwee buñ ko buñ leen laajee duñ gis loolu waaye tukkikat yi ba ñëwee ñoom ñëpp gis nañ loolu xad fa baxril mooy loolu rek Moussa xotti na géej gi waaye yonent bi bañ ko ñaanee mu xotti weer wi xotti na ko suleymaanu malkun sa xaral jinna bay na ma suleymaan yàlla tasxiiral na ko jinne yi ñu koy liggéeyal yaamaluuna lahu maa yashaa'uuna maxaariba wa tamaasiila wa jifaanin kal jawaab wa quduuran raasiyaat i'malu aala daawuda shukran wa qaliilun min ibaadiya shakuur yàlla tàggatal ko jinne yi ñu koy liggéeyal waaye yàlla yonent yàlla Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam malaaka yi la ko yàlla tàggatal ñu koy liggéeyal ñu ñëw ci xaswatu badrin di xeex jibril nekk bëkk néegam maraadu aminillaahi markazu ahmadin ah qad istaxdama alhaadi malaa'iku man kafa yonent bi jëfandikoo naa malaaka yi wa asra bihi llaahu ljalilu jalaaluhu yàlla rañaane naa ak moom yàlla mu màgg mi ilal qudsi jëm ca péeb yàlla bi lil ulwi ñeel kaw al ali bay aji kaw mutasarrifan muy aji soppandiku bàyyi na wa inni lahu asri wa in nii bihi asri wa in nii bihi asri dama laa xam wa in bihi asri wa usri bi asri bi loo am wa anni wa inni lahu asri wa inni lahu asri maa ngi rañaan jëm ci moom rañaan mooy tukki guddi yonent bi tukkeem googu nga xam ne du comme tukki guddi yëpp diggante xef a xippi fa mu tëddoon balaa tàngoor waajeem dem da baytul maqdis ak ya xew yëpp xew na fa te ci jëmmam lay jote boromam ak ci roxam ñiy werante ndax yonent bi dafa rañaan ci roxam rek wala ci jëmmam bàyyi na rañaan ci roxo ak jëmm mooy jagleeg yonentu waaye góor yàlla yu bëri yàlla may na leen rañaan ci roxo moo tax mu ne wa inni bihi asri wa usri bi sirrihi wa wa inni lahu asri wa usri bi sirrihi ladal ladal xadratil ulya ura mutaakifa damay rañaan jëm ci yonent bi waaye damay rañaanal ñeneen may def ñeneen ñu rañaan jëm ci yonent bi baay am na ci ay taalibe yu ko bind seen ak rañaan wa inni bi lahu asri wa usri bi sirrihi damay def keneen mu rañaan ladal xadratil ulya ura mutaakifa wax na ne saraytu bi ruuxi xanaa leeral na boppam foofu saraytu bi ruuxi axtafi jisma ahmadin maa la ñaan ci sama roxo topp jëmmi ahmada ngella luy roxo ak ngella luy luy jisma ahmada loolu beneen wax la waaye déggal ne bàyyi nee na man rañaan naa ci sama roxo bàyyi am na rañaan goo xam ne cëli bi sax la ko defee mu ne yëguma rek lu may yéeg ne maa ngi ci suuf maa ngi téye sama xet bi yëguma rek lu ma yëg ne maa ngi téye sama xet loolu beneen waxtaan la rañaan dox na doy na waxtaan duñ dugg ci loolu sa yonent rañaan googu nga xam ne ñoom daje na moom ci rañaan googu daje na aadama ci asamaan su njëkk dajee yaxya ak isa dajee yaxya ak isa dajee euh, yusufa dajee haaruna dajee muusa dajee yusufa dajee muusa daje dajee ibrahima alayhi salaam ñoom ñëpp dajee nañu moom ñoom ñëpp ñi dëggal ak yonentam mu dajaat ñoom ñoom ñëpp ci baytul maqdis ñoom ñëpp mu jiite leen julli pour wane ne kii mooy sayidul anbiyaai wal mursalina salawatullahi alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajmaina moo tax bàyyi ne yu arriqu nii zikra soraahu bi makkatin bàyyi ne na léeg-léeg fàttali ko rañaan ak yonentu bi ci makka daf may teree nelaw waqat kittu ësri ba may waaja rañaan waxatuma waaja waaye dama rañaan yu ëriqu ni zikra suraahu bi makkatin waqat kittu ësri aw saraytu kazaliki ba may waaja rañaan bàyyil ba may waaye dama rañaan sax fàttaliku rañaan gi daf may yóbbu ci rañaan fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yóbbu ci julli daf ñu yóbbu ci or daf ñu yóbbu ci jàpp lislaam daf ñu yóbbu ci jàpp alquran daf ñu yàpp yóbbu ci bëgg yonent bi daf ñu yóbbu ci bëgg saxaabatu rasulillahi sallallahu alayhi daf ñuy yóbbu ci wéral yi wérutoon daf ñuy wéral ci saxal yi wér daf ñuy yóbbu ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbëggeel guy yokk te du taxaw daf ñuy yóbbu ci bëggante ñu ni neen daf ñuy yóbbu ci bëgg réew miñ nekk daf ñuy yóbbu ci bëgg jullit ñiñ nekk ak daf ñuy yóbbu ci bëgg mindeef yiñ nekk ak ndax loolu la jëmbal lu mu turam jeex na lay salaatullaahi yuqarribu ni diyaanu anniya qad afa maa ngi julli ci yontu bi nag sallallahu alayhi maa ngi ñaan ci barke julli googu yàlla ki nga xam ne mooy fay ku def yàlla nañu yàlla jegeel te tim yàlla nañu yàlla jéggal loolu la ñaan salaatullaahi maa ngi gis huut yi nga xam ne ñooy yahud yi nga xam ne ñiy xeex diine fu mën a nekk bàyyi na yàlla leen gis ne dëddu nañ jublu nañ dëddu nañ bàyyi fi lislaam may ko jàmm ñiy xeex diine lay ndax bàyyi mbëggeelam nee na bëggeel bët bi muy xool doomi aadama kenn du ko xool di ko di ko di bañ kon doomi aadama yëpp la bëgg waaye buy ñaan dafay ñaanal dëgg di ñaanal di ñaan yàlla ñiy xeex dëgg ak ñu ñu mën a doon kon saxaa yi nay lay ñaan alayhi salaatullahi duma salaamuhu wa min walidi cheikhan wa aslan wa muqtafa maa ngi julli ci yontu bi waaye julli gi mu ngi mel ni maa ngi wax ne julli gi sama bàyyee ko julli ci yonent bi baay boo xam ne mooy kan cheykhan gannaaw bu mu nekkee bàyyi cheykhan muy sama sëriñ wa aslan di cosaan wa muqtafan di koñ roy waxoon nañ ko ci commencement bi salaatullahi wa salaamu xafawtu abi xaasaahu wa huwa maa ngi julli ci yonent bi di ko bëgg di ko tagg te sama baay laay tagg laay laay roy fekk mu doon sonnee loolu fekk moom mag la jazallahu anni walidi wa muallimi jazaa karimin neema cheykhan wa murtada jazallahu abdallahi xayran fa innahu hadaani wa sheytaani bihi lam yanal azzi bàyyi ne na yàlla na yàlla fay abdullahi kii baayam xéew moo ma jubal ba suma ma seytaane man manumaa gësam yoontu bi daf ne ku nekk am nga seytaane am nga malaaka mu lay sawarloo ci baax ak seytaane mu lay xiir ci safaan yonent bi ne moom moom seytaaneem tuub na baay ne sama baay moo ma teg ci yoon moo xam ne sama seytaane mënul maa yëngal santee na yàlla wasaana ilaahi nafsiya dahra laa ura amilu ila ma fi shar'i jaiza looloo gën a kawe yàlla sange sama bakkan bi ba kenn tu ma gis ma jëng jëm ci loo xam ne daganut ci shariat bi alayhi salaatullahi wasalaamu wa alin wa asxaabin kulli alladi qafa mu julli ci yonent bi julli ci saxaaba yonent bi ak képp koo xam ne rek topp na yonent bi ndax mun nañoo julli ci kudut saxaaba ndax yàlla ba mu waxee ne wala yusalli aleykum malaikatu li yuxrijakum min azulmaati ila nuur te ku julli ci yonent bi yàlla julli ci yow salaatullahi wa salaamuhu bisal qadri ci biyee wal miqdaari qadroog miqdaar ci arab ñoo bokk lu ñu firi waaye arab ñi doon jàngale luxa dañoo wax ne waxtu bu baat yi yokkee maanaam yi yokku waxtu bu baat yi yokkee maanaam yi yokku nag dayoog nubuwatoom ak dayoog wilaayatoom dayoog nubuwatoom moo gën a màgg dayoog wilaayatoom waaye dayoog wilaayatoom moo gën a yaatu ndax ci aadama la ba ci nafxu fi suur te dayoog nubuwatoom bam fàddoo rek la nubuwatu fàddu waaye wilaayatu dëgg-dëgg yonentu bi sallallahu moo ko moom keneen kuy mos mos ci sa wàll bàyyi na maa ngi julli ci yonentu boobu nag feeg aji wax a ngi wax diyaun min alhaadil bariyati mustafa sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala sayyidina muhammadin alfatixi lima uxliq alxaatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq alhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim salaatan turina biha alijabata aynan xiinan fi anfusina wa fi ahalina wa zuriyatina wa asxaabina wa quddaamina wa ahbaabina wa ansaarina man xadara min aljamici aw gaaba wa zidna wa actina wa arfacna wa daafi anna wa axfadna وسدد أمورنا ورح أبداننا وقلوبنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك